وكل ساعات ولا يزال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 di julli ci sangu bi nii fi sallallahu alayhi wa sallam di sant sunu yaakaar tey ak bu ëllëgee Cheikhuna Ahmadou Bamba Xaadimal Mustafa noo ngi am mbégte di dellusiwaat ak yéen ni ñu ko baaxoo di def dimanche bu nekk ci waxtu bi ci seen émission euh, diaspora euh, ngeen di ci ànd ak seen bokkum taalibe géwalu Xaadimal Mustafa ci wàllu xarala gi sëñ Modou Mbaye Thiam Baye Fall ak Sidna Alioune fële ci situation Cheikh Mountakha ibn Cheikh Mouhamadou Bachir Nongi ngi jéggalu bu baax nak wax dëgg yàlla ginnaaw bañ leen ziaré ci retard bi yàlla dafa def rek ñu newoon ci tool yi euh, kon nongi ngi jéggalu bu baax retard bi euh, tool yi ñu tënkoon rek waaye nag euh, nongi jéggalu bu baax kon nongi ngi ñëpp di jël bi ak nuyoo bi di ko teg ci loxol ki nga xam ne mooy jëmmi Ahmadul Xadim tey ci kaw suuf muy Serigne Cheikh sidou Muxtaar Mbacke ibnu Cheikh Mahamadul Amin di ñaan sa borom mu guddal aw fanam te wéral ko ba mboolem naal yi nga xam ne am na ko ci toolu lislaam mu def ko te am ci lu kawe njort euh, di ko ñaanal bokkam yu baax yi nga xam ne ñoom la bokkal euh, toolub lislam buñ ci tuddee ku mel ne Cheikh Ahmed Tijani al Maktoum xalif général Tiwaawan tudd ci ku mel euh, nga xam ne mooy Serigne Abdoulaye Thiaw Laye xalif général Layen tudd ci ku mel ne Mame Bou Mouhamed Kounti xalif général Xadriya ci Kunti ñu yóbbaale ñëpp ñoo ngi leen di siyaare di ñaan yàlla mu sàmm leen sàmm leen liggéey bi nga xam ne moom leen mag ñu tedd ñu bàyyeel ba fa ñu ko bëgg a ñu àggale ko bu ñu tuddee ñooñu ñëm rek ñu yóbbaale mbooleem koy kilifa diine euh, di siyaar nag bokki bi yëpp ak fu ñu mën di dégloo rajo bi moo xam ñu ne ci biir réew mi la euh, ci Italie yëpp wax dëgg yàlla euh, wala ñu ne nekk ci bitim réew mi la ñu ne Sénégal ak ñu nekk ci yeneen continent yi ñu ngi siyaar ñëpp ndax kii déglu moom kii wax kii déglu moo koy jàppale euh, te wax naa ba tey ne wax ki ñu fi nekk di wax di suñu xam-xam di suñu man waaye nag euh, jéem la rek gëstu yi tey nag sama mbokki daara yi dafa mel nañoo am gànt euh, sëñ Pape dafa am gànt sëñ bi am gànt yàlla def ma ne woon ci tool yi moo tax retard bi waaye nag ñu ngi koy jéggalu bu baax a baax a baax di ziar baax sëñ Abdoulaye Abdoulaye Hassanaat di ziar sëñ Mahmoud Mbacké di ziar sëñ Moussa Kamal ak mboolem Moustapha rajo Xassida online yëpp di leen jaajëfal di rafetlu ànd bi Cheikh Ibrahima khalid ñu ngi lay jox sa cër di la jox sa wàcc waaye di la ziar bu baax a baax a baax tey nag dafa am mbir mu am solo moo xam ne dafa am keroog ci bi nu weer wi muy le premier février 2017 muy yàlla dafa def ñi nga xamante ne ci bis boobu ministère de l'intérieur maanaam le premier février 2017 sumu ma juumul alxames la suma juumul yaakaar naa alxames la wala wala alarba alarba alarba euh, ci ministère de l'intérieur bu italien dafa am xew-xew bu am solo bu fa am ba yàlla defaat ci tawféex euh, l'islam am fandam ci turu Cheikhuna Ahmadou Bamba Xaadimal Moustapha ndeysaan ñu bari gis nañu ñu partagé euh, publication bi nga xam ne suñu mbokk taalibe di suñu mbokk sénégalais ñu am fierté lool mu dal dalal ko ay yoon ci barab bi muy Ali Baba Faye moom euh, yàlla dogal na moom moo publier loolu muy taxawaay bu am solo euh, mu wax ne démb euh, benn fan ci weeru février ministre italien bu intérieur ci biir li nga xam ne moom mooy warugaru nguur gi warugar woo xam ne nguur gi rek moo ko moom li ñuy wax prérogative régalienne nga xam ne ci nguur gi rek la mën a bàyyeekoo ci lu jëm ci ñi nga xamante ne maanaam nit ki fu nekk mën a dund diineem rawatina euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, jullit yi euh, ministre de l'Intérieur dafa signé benn pacte national muy maanaam benn xaatim bu ñu xaatimante ak mboolem communauté islamique yi fi ne muy njabootu l'islam yi nga xam ne ñoo ne ci biti réew Ali Baba nee na moom en tant que ndax xam ngeen mooy conseiller cabinet bu secrétaire d'État bi nga xam ne mooy yor wàllu dossier boobu muy lépp lu jëm ci àq ak yelleef yi ñu war a def yi ñu war a état bi war a am état italien ak mboolem këri diine yi euh, ma maanaam communauté islamique yi euh, yàlla dogal nee moom mu am mbégte lool bokk ci fekke loolu nga xam ne wax dëgg yàlla euh, l'islam amat na ndam ndax mboolem l'islam li muy rëy rëy turu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimul Moustapha rek lañu ñu fa tudd turam bu tedd boobu tamit moo nekk ca biir xaatimante boobee loolu tamit wax dëgg yàlla mu ne am na ci mbégte am na ci fierté ci doon gi mu doon sénégalais waaye doon gi mu doon tamit ab taalibe yokk ci ndeysaan sëy sëñ bi daal mbiram yéem na ma lool mbirum sëriñ bi daal yéeme na loolu ndeysaan mi ngi ko bokk tamit ak mbokk mi nga xam ne mooy sëñ Modou Mbaw eh, nekk Brescia di yàlla def mu ci bopp jamia bi eh, jamia taawun ala taatillahi wa rasul muy association nga xam ne baa mu Tuubaa Brescia xam ngeen sëñ Modou Mbaw fi ne moo ci bopp bi yàlla dogal na moom tamit mu fekke loolu muy lu am solo ñu ko doon defee kon loolu wax dëgg yàlla lu am solo la ndax ba ñu teewee ministère de l'intérieur teew kanga yépp teew tudu Cheikh ahmadu Bamba Xaadimal Moustapha moo fa jolli wax dëgg yàlla loolu tamit di feddle rek li sëriñ bi waxoon ni inni uxaatibu nasara turra fi ardihim li maliki mutarra tayaqanu bi annani abdun ilahi wa xadimun li rasulillahi loolee kon lu am solo la kon sëriñ bi amutul frontière mosu koo am waaye gën naa firndewu ndax yaakaar naa li fi nekk ci ay communauté musulmane ci adduna bi li fi nekk ci ay ay ay ay communauté yeneen yu bokk ci yeneen diine muy juif yi muy euh, yeneen euh, maanaam euh, secte yi muy yeneen tarixa yi ni ci biir religion chrétienne nga xam ne protestant yaa ngi ci copte yaa ngi ci kii yaa ngi ci orthodoxe yaa ngi ci ñëpp a ngi ci catholique yaa ngi ci ñëpp a ngi ci wax dëgg yàlla xeet yooyu yëpp diine l'islam turu Seexuna Ahmadou Bamba Xaadimal Moustapha euh, moo ko yëkkati fii ci biir réew mi kon loolu di ndam doonaat ndamul Seexuna Ahmadou Bamba Xaadimal Moustapha ndeysaan sax bu ngeen gisee euh, nataal bi nga xam ne sunu mbokk Ali Baba Faye publier waale na ko ndeysaan euh, sëriñ bi ci yenn bayit ci xasida bu am solo boo xam ne Seexuna naa Xaadim bind na ko mi ngi wax ne man de damaa xaatibante ak sama borom Euh, ni même su fekkoon almahdi muy ki ñu yónni woon dafa ñëwaat ci suuf daal di woote jihaat jaare ko ci ay ngànnaay man duma ko dimbali man duma rey jaan duma rey jiit duma rey benn bakkan buy dund ndax euh, yoon wi nga xam ne moom laa tànn daf ma tere jël ay arme euh, di xeex kon loolu dafay firndeel la Sëriñ Tuubaa ni woon Eh, wa maqaaluhum xaqun ba nga xam ne tubaab yi jël nañ seen xalima wax ko ni ko da ngay geer sëriñ bi ni cas xalimaam ca xasida ca xasida gu tedd googu ñu wax yaa jumlatan ni wa maqaalukum xaqun inni ujahidu sari wax li ngeen wax dëgg man de ab jihaad kat bu wér laa waaye nag inni u jalla ujahidu inni ujahidu bil ulumi wa bi tuqa abdan xadiman wala muhayminu shahidu kon loolu yaakaar naa ne eh, tey eh, firme firnde wu na loolu confirmé na wu na kon Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimal Moustapha kenn lu moom amati na ndam euh, te bu ko amee lislaam ko am ndax Serigne Touba léppam sallallahu alayhi wa sallam la ndax ki nga xam ne def na salaatu sitta bi mati sitta tatibata maati shay ki nga xam ne def ne yu bajjilu kulli kullakal yu bajjilu yu bajjilu kulli kullakal yowma margadin wa insha rabbi la ura dahra sawani sama lépp mi ngi màggal léppi sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ne def ne آه، اللي هو دهر النياتي نيال يعني نكو سما ييني وا علمي سما خام خام وروحي اك سما رو جسماني وكل بلا سكل اك سما ياب يرم وخاني آه، نفسي سما بكن آه، نفسي وديني سما ديني ونفسي سما بكن نفسي وديني من سما بكن اك سما دين سما ريليجيون مي الاسلام سما اهلي اك سما نين يعني ورا اك سما دون لاك ودي وخات الابد دينك صلى الله عليه وسلم كون كوكو بايولو سلام سلام دارا واخني fukki bis yi buñ ne bis yi ci euh, weer yi ne ci at mi bu dee fukk ñaar daf na salaatu sitta bi mad ay sitta tati batama at shay nee na fukki weer ak ñaar yi daf koy xaaj juróom-benn weer yi muy euh, julli ci salallaahu alayhi wa sallam yeneen juróom-benn weer yi muy tàgg salallaahu alayhi wa sallam kon kooku amul nopplu ci ak liggéeyam lépp daf koo jox salallaahu alayhi wa sallam ni ko sëñ daan waxee naan bi sëriñ bi ñëwul yoonu liggéey mi mooy boo xëyee wàcc dallu gontaat dallu wàcc gallu waaye sëriñ bi daa jël gont ak galloo euh, xëy ak gont lépp jox sallallahu alayhi wa ne ci ab toolam di ko liggéeyal kon yaakaar naa bu nu demee ba tey fii nga xam ne dafay une terre de religion di maanaam suufus diine muy euh, Italie nga xam ne duma dañ di ko wax c'est le berceau du christianisme maanaam euh, diine bi gën a mag muy diine kër labbe fii ci ci ci ci réew mi muy diine l'islam diine kër labbe diine chrétien seen jàngu bi gën a mag nga xam ne mooy seen euh, màkk ci ñun jullit yi ñu ngi fii muy Vatican kon réew mu du mu caaxaan réewu diine la ndax fu waaye jëm ci wàllu kër labbe ci wàllu diine christianisme mu ñuy topp sidna Isa alayhi salaam kon fii la ñuy defe seen i ak muy seen pèlerinage kon bu barab boobu tey yëkkatee ci ministère de l' intérieur turu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimal Mustafaa mu mandargaal communauté musulmane yi muy ñëpp ñu nga xam ne ak yéen ci l'islam rawatina ràññeeku goo xam ne njabaru Sëriñ Tuubaa ràññeeku nañu ko ci seen pastéef ci seen taxawaay ci seen jàppu njaambur ci seen nangoo liggéey euh, dund seen diine euh, ci pacifisme bi nga xam ne Serigne Touba Khadim Moustapha daf ko euh, daf koo daf koo woote daal di koy mettre en pratique bien avant Gandhi bien avant Martin Luther King kon non violence dëgg ak pardon ak dépassement Cheikhouna Ahmadou Bamba Khadim Moustapha moo ko dund moo ko wane feeñ na duma ko ñàkk di wax feeñ na ci bi nga xamante ne yàlla dogal na nasaraan yóbbu ko ànd ak moom juróom-ñetti at yu manqué tuuti sëriñ bi daf ne afawtu anil ahdahi turani wal iman jéggal naa sama noonu yëpp je cherche même pas à me défendre waaye bi muy ñaan dafa ñaan yàlla jéggal lépp lu mu bind yaa malikal mulki yaa man jalla an xawadin irham jami alwara ya hadin laha kon sëriñ Tuubaa xaadimal Mustafa bi ko noonu bu ndaxatale génne ko am réewam eh, mu wax ko sóor yi xalat واهل الع... ونهل عني تفرقت لمدح الذي انهم لي خسروا سرين توبا خادم المصطفى ويت لول واي ويت ليكو يالا ويت ليكو سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ويت ليكو صحابه الكرام ويت ليكو اهل البدر واي ويت ليكو القران الكريم باتاي جي مو ام دام ياكار ناني نيب داني لين سرين توبا خادم المصطفى رك مو سورتي فينكر damay wax ne la demu la ci ku bax la ma nga daanu ci deqale en 10 le 26 octobre 1896 ala ab julit la won domi rew mi la won bokkum rew mi la Maba Ba il est tombé à somme en 1865 ku bax la won 1864 65 El di wali eh, yu yalla nga xamne bi mu jare Mbàkke si ëttub Mamour an seli il avait prédit waxon na ni eh, eh, sangum jamono lay fi lay bayiko ko muy Cheikh Ahmadou bama Khadim mustafa dafa and ak non di jihad ba il est disparu dans les falaises de Bandiangara te xéru Bandiangara la dem en 1865 Mahamadou Lamine fo de Kabio Dundiya ñom ñepp wax dëgg yàlla jihad ba doon ay shahid tubab bi ñom ñep mo sortir vainqueur la sa Touré ñu bu ko dans les îles de Ndiolé sur de Louga en 1900 waye ñoy ñep Cheikh amadou Bamba Khadim Moustapha ne man de duma ma yëkkate ngànnaay mukk di xex waye ana lu may xexé moy inni ujahidu bil ulum bi tuqa abdan qadim wa haymin shahid ma vraie guerre la grande guerre sama guerre deug deug mi ngi nek ci euh euh sàkku xam-xam ak yar sama nit ci ragal yàlla kon inni ujahidu bil ulum ma ngi sa ngi guerre ci sàkku xam-xam وبتقى أجر جليان توهونا نه دي من خادم المصطفى دما تون كن دما تون سما برام تكما تون مجيغل يا كارنا كون ديماشون بيم غا امنا كو تاي ديماشون بلانيتير ناخ دامي واخني سيرين توبا سي تان نيتر ملتي ديمينسيونال ملتي ديريكسيونال سيرين توبا يونيفرساليتيم تاي سي بولي ا ديمونتري دونا تول لو ني ديمونتري لو خامتيني تامي دنجي وو نيت واي ايفيدنس لا ميغي ميل لي وير bu la neexee da nga koy gis bu la neexee da nga ko gis kon nag jaaraama borom Touba njaarim genn gor genn giir euh, muy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Mustafa jërë ngeen jëf ci ànd gi ngeen ànd ak rajo online tuba Monde bi. genn gor génn géer génn góor euh, gi nga xamante ne wax dëgg yàlla euh, tey euh, gën naa firnde wu ndax ku dem ci dëkkam ba nga xam ne moom mooy Touba ku xool Touba na mu mel te ñun la ñu ngi ko sañ ci 1888 nga xam ne dëkk la boo xamante ni wax dëgg yàlla particularité bi nga xam ne Touba am na ko rek dafa feeñal melokaan. ak li nga xam ne mooy jagleel Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimal Moustapha sangu bindee fi dëkk boo xam ne dañ ko sanc ak léegi téeméeri at la ak ñaar fukk ak juróom-ñeent mu mel ni mu mel nekk sur le euh, point de vue le plan économique sur le plan populationnel mu nekk ñaareelu dëkku Sénégal te ñu sanc ko juróom téeméeri at ak ñaar fukk ak juróom-ñeent loolu yaakaar naa ne tey kenn ku nekk gis na kon dayëb Cheikhuna Ahmadou Bamba Xaadimal Moustapha kenn ku nekk gis na Serigne Touba ni koy yàlla ni mu wéetale yàlla wéetale sallallahu alayhi wa waaye loola tamit xam ngeen ne sunu borom fay na ko kon ba wis ko kon jaarama borom Touba njariñ kon euh, mbokk yi loolu rek laa andi woon tey euh, ñu waxtaan ci weccante ci ay xalaat gis am tam jeexital bi nga xam ne war na koo jur ci taalibe yi jeexital bi nga xamante ne war na ko euh, am ci képp koo xamante ni Sénégal rafet rawatina nga di ab julit waaye rawatina ngay taalibe Serigne tubaa ndax damay wax ne taalibe bi Serigne Touba day dafa doon missionnaire dafa doon ambassadeur fépp fu mu dem ni ko Serigne Mamor moom Cheikh Mouhamadou Mourtada di waxee euh, euh, war nañoo fexe ba ay comportement yu responsable war nañoo fexe ba seen comportement kenn du ci yeb diine Serigne seeni comportement kenn du ci yeb euh, ab julit kon lii nga xam ne tey média yi ak pays occidentaux yi dañoo jóg di dal l'islam di yëkkatee ay baadu ñaaw nga xam ne fi ne ku di ab julit buñ déggee julit rek dañuy tiit bu ne boo ne julit laa rek lañ ngay xoole mooy ay kamikaze wala ku yor ay bomb walla koo xamante ni nii dafa indi na te fekk na booba lislaam diiney jàmm la l'islam diiney bokkoo lislaam l'islam diiney bokk ndey la ak bokk baay ak yërëmante ak tamit laamiso ndax euh, lakkum diinu ko mu diine la suñu borom wax ci alquranu karim yéen ak seen diine maag sama diine ne kenn ku nekk gëm la nga gëm te kenn ku nekk respecté sa morom kon yaakaar naa ne démocratie yaakaar naa ni foofu la tàmbalee ci lislaam sunu borom euh, wax ko ci alquranu karim téeram bu tedd boobu ci suratul kafiruna kon muy taxawaay bu am solo kon buñ jàpp ne euh, ndax fu mu nekk nii dañoo diaboliser l'islam loolu lépp nag ay instrumentalisation la yoo xamante ni noonu l'islam yi rawatina pays occidentaux yi ñu ngi koy jëfandikoo ngir euh, euh, bëgg a stigmatiser l'islam bëgg ragaloo nit ñi l'islam te l'islam lépp dina jàmm la ndax ki nga xam ne bu lay nuyu di wax asalaamaaleykum nga ne ko waaleykum salaam wa rahmatullah yàlla na yàlla delloo la yërmande delloo la tamit jàmm loole loolu yaakaar naa ne euh, munta ànd ak di fitnaan doomu adama munta ànd ak jël ngànnaay di rey ay doomu adama munta ànd ak di takk ay bomb di di rey sa bopp di rey ñeneen ndax loolu képp ku ko def na leen ni génn nga lislaam xaru tere yàlla lu ko tere lislaam euh, tere ko kon ala kulli xaal képp ku ko def nga doon ab jullit ak leneen loo mën doon ne leen defa nga yàlla tere ndax bakkan sunu borom moo ko bind moo ko moom moom rek kon moo ko mën a jël kon lépp loolu ñuy gis muy ndax il faut tam ñu def le distinguo entre islam et arabité ndax arabe c'est un peuple am na ay arab yoo xam ne sax du ñu ay jullit bu ñu yaakaar ne kon lépp luy arab rek l'islam la déedéet am na ay arab yoo xam ne nii du ay jullit kon loolu dañ ko war a xam xam ne arab yàlla dafa def sunu borom taamu ko muy langue bi nga xam ne moom la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam doon làkk ak ñi nga xam ne ci ko yónni woon moo tax sunu borom wàcc alquranu karim ci langue arab ndax mooy langue Seydina Muhammad alayhi salatu wasalam ak euh, euh, péninsule arabe bi bi nga xam ne ci la ko Seydina Muhammad alayhi salatu wasalam wàcc waaye kon euh, du peuple arabe bi yëpp rek luy arabe rek ñu euh, ñu ñu ko ci l'islam ndax boo xoolee fi ne mën nañ ne ñi arab yi ci adduna bi mën nañ ne jullit ci adduna bi mën nañ ne arab yi bokk nañ ci jigéen a néew ndax bu ngeen xoolee pays arab pays l'islam bi gën a mag ci adduna muy Indonésie euh, xam ngeen ni du ñu ay arab mooy xam ngeen ne Inde bari na ay jullit lool Chine bari na ay jullit lool te du ñu ay arab kon loolu aussi day jël bàyyilu xel ne lépp luy arab du l'islam bien vrai que ni ma ko waxee woon léegi la langue du Coran c'est l'arabe waaye nag ñu def distingo boobu waaye kon euh, li nga xam ne am na namu l'islam la kon sëñ Modou Mbaye Thiam mën ngaa ubbi ligne bi euh, bu ko defee bokk yi nga xam ne bëgg nañoo andi seen participation euh, ñu andi seen participation maa ngi ziar bu baax tamit di jaajëfal sama mag yu baax yoo xam ne tey daf ma seeti woon yàlla daf maa seet si woon yàlla dogal mu fekk ma ci tool yi maa ngi koy jaajëfal baax euh, di leen seede sama cant ci moom di fàttali sama kóllëre ak moom ak bokk yi muy sëñ Mërgu Samb moom sëñ am sa borom jaar bitu maraxib àndoon ak Ibrahima Niang ak beneen bokk ba Baricha ñëw par ma seet si ma wax dëgg yàlla defal yàlla dogal moom nekk ci tool yi maa ngi leen di jaajëfal di leen sant di ñaan sëñ Tuubaa jógoy dem yi ak dikk yëpp ñu defal ko tawfeex ak ak njëgal Euh, sëñ Modou xam naa mën ngaa ubbi ligne bi bu ko defee bokk taali bi nga xam ne bëgg nañu tabbi ci waxtaan mi ngi tabbi ci tey daal kon thème bi mooy li nga xam ne tey jii l'islam amati na ci ndam muy turu Serigne Touba bi nga xamante ni yëkkati nañu ko ci ministère de l'intérieur italien mu mm, jëmmal lépp luy lislaam nga xam ne mooy euh, maanaam euh, pacte bi nga xam ne muy xaatim bi nga xam ne Euh, maanaam réew mi réew mi Italie dana ko euh, xaatimante na ko ak li nga xam ne ñooy communauté islamique yi muy njabootu l'islam gi fi nekk kon wax nañu ni turu ba fa jëkk euh, mooy turu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul loolu doon ndam kon may ñaan bokk tali bi rek ñu sëñ Ibrahima Diop daal xanaa xam naa danaa ci soxla xalaatam Baye Mbërgu Cheikh Moustapha Kamal xam naa sëñ Ibrahima tey moom mënoo ñàkk dugg du ñàkk wax dëgg yàlla ndax jàpp naa ne kon lii xew rek day gën firndeel day gën a firndeel euh, maanaam euh, nekk ji nga xam ne Cheikhuna Ahmadou Bamba Xaadimu Mustafa nekk na ko jëwriñu sallallahu alayhi wa sallam ndax damay wax ne Xaadimu Rasul moo ko njëkk a nekk waaye ginnaaw moom day ala kulli xaal kenn dootu ko nekk ndax la mu jaayante ak sallallahu alayhi wa sallam euh, joxe léppam ngir rek doon liggéey ko sallallahu alayhi wa sallam te ndeysaan ren màggal gi dañu dem ndeysaan bi yàlla dogalee ñu représenté woon ay doon defal ay reportage suñu mbokk taalibe bi Aliou Ndiaye ci Diaspora 24 nous daje ndeysaan ak ki nga xam ne mi ngi nekk turki nekk professeur waaye itam représenté communauté islamique bu am solo daf ne nit ñi dañuy juum lu bari ci Serigne Touba ndax buñ ne xaadimu rasul dañuy xool ne xaadim mooy garaat bu suufe la muy maanaam ki nga xam ne moom mooy liggéeyal servant muy maanaam bindaan waaye tamit nee Serigne Touba foofu dafa lu ko fa yàlla may ndax xam ngeen ne mbindaan wala maanaam booy wala kay liggéeyal nit kooke moo xam ay secret moo xam ay secret yi biiram moo xam ay secret yi bitim moo xam ay mbiram kon Serigne Touba Xaadimul Mustafa daal kenn xamut lu mu doon kon euh, doon gi mu doon liggéey sallallahu alayhi wa sallam tax na mu jaxasoog moom may kenn di moom ndax léppam sallallahu alayhi wa sallam la daraam génn ko ab dëkkam ak njabootam ay taalibeem lépp lépp lépp dara génn ci sallallahu alayhi wa lu mu am euh, sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu am ko kon bu yàlla dogalee kon mu ne fett fettéral nii wét teg ci góor yàlla yi dafay lu neex sunu borom subhanahu wa taala doon lu neex sallallahu alayhi wa sallam eh, mi ko yëkkati eh, muy jëwliñu kon eh, maa ngi fàttali mbokk yi ni yéen a ngi déglu rajo xasida online Touba Monde bi kàddu gi di bàyyi ko ci studio Cheikh Mountakha ibn Cheikh ko di Brian Seck ci wàllu xarala gi sëñ Modou Mbaye Thiam Baye Fall Sidna Alioune Jazbul Murid ci wàllu waxukaay gi seen bokkum taalibi géwlu xaalimal Moustapha tey nag diaspora dafa andi tey wax dëgg yàlla kii bu bees ndax olof yi dañuy lu def waxu lu ay tamit di njàmbat muy jàngat boobu nga xam ne def nañu ko ci li nga xam ne am na keroog àllarba ci euh, ministère de l' euh, bu Italie euh, ni ma leen ko leeraloon léegi rek muy ndamal l'islam waaye tamit di ndamal sunu yaakaar tey ak bu ëllëgee Cheikhuna Ahmadou Bamba Khadimal Moustapha waaye kon ñu ngi ciy sargal ki nga xam ne moo ko fi toogal muy Cheikh Sidi Mokhtar di ñaan yàlla mu guddal fanam te wéral ko lool barke Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Mustafa xam naa sëñ Modou mën ngaa ubbi ligne bi bu ko defee mbokk yi nga xam ne tamit du ñàkk ñu am ci ay gis-gis euh, xam ne kon euh, euh, yoonu murit amati ñu aw sas taalibi Serigne Touba yi fuñ ne ci adduna bi amati nañu aw sas rawatina ñu ne ci Italie nanu gën a góorgóorlu defaraat toogaay yi gën a sax ci ak taalube gën cee xeetal suñu njaboot nampatal leen ci waaye itam gën koo dund ndax taalibe du waxe kese waaye jëf la waaye comportement la ni ko sëñ Mamadou Moutala di wax ne l'islam du ay symbole rek waaye dafa ay jëf la ak ay comportement mooy ni ko Sëriñ Tuubaa daan waxee di yéenal jàmm di yéene aw yiw di wax aw yiw waaye itam euh, niyatul xayr euh, di wax aw yiw waaye itam di jëf aw yiw euh, loolu xam ngeen ne tamit Sëriñ Tuubaa Xaadimu Mustafaa jàmm rek ko ñor ndax bu daan signé xam ngi li wax asalaamaaleykum tabil daal la daan signé muy euh, jàmm ñen li nga xam ne ñoo tax taxaw ci siratal mustaqim ñoo ne ci yoonu njub kon euh, képp kuy taalibe Serigne Touba foo nekk ci àdduna war nga fa nekk exemple foo nekk ci àdduna war ngaa ji li nga xam ne ci la ñu sëñ bi yar muy liggéey ak jaamu yàlla waaye bokkoo ak ñi nga bokkal ndax nit mën naa mi bokk te du ak ñoom foo ne ci àdduna bi fu fa ab daayira ne nga dem jokk ca daayira ba ànd ak sa bokki taalibe yi waaye ni ab taalibe laa foo nekk euh, kenn du euh, bu sëriñ ñooy kenn du la gis bu ñuy demee ci daayira kenn du la gis bu ñuy laaj doo joxe ba pare nga ni sëriñ bi nga gëm déedéet sëriñ bi li mu bëgg mooy taalibe ni ñu ànd ak taalibe yi ndax kat dañuy wax ne béy bu àndee ki béy mën naa mucc waaye bu génnee euh, gerte gi mën naa ànd ak cere kon loolu waxin la béy moom li fekk mu ngi ci biir gerte gi rek mën naa mucc kon ab taalibe dafay jige ay mbokki taalibeem dafay jige دائري يي دافاي جيغي اه، ليغا خامني موم موي اسوسياسيون اسلاميك يي واي ني اب طالب لا نتي ليلا نيه بون ني سيغ بي غالي غاي لي ني لاج دافا بري بون ني سيغ بي سيغ ديو نيو نفا غاني مان دا ام اي جافا جافا كون لولو سيغ توبا نا كين مونو كو ناخ سيغ كو تاو داي تخ كون نانو غور غور كي طالب تيكو داكات ngëm moom ñatt la day dëggu ci ab xol wax ci aw lammiñ waaye feeñ ci ay jëf waaye ak taalube kenn du mu doon waxi kese rek wala rek nga nga di ko wane woo déet dañ koy jëf jëf ju wër yoo xam ne képp ku la xool xam ne yow mi taalib sëriñ tubaa kon loolu sëriñ tubaa bëgg ci ab taalibam ñu doon ay murid saadix wa nabi li ni ko cheikh ahmadou karam bakke ñoo leen di waxe taxaw ci siraatal mustaqim di dimbalante rawatina bu jamono mettee jamono yi metti war naa tax nit ñi gën a mën a ferdeel seenu taalibe la ci lan ci lépp lu ñu am bokk ak seeni mbokk taalibe ndax yàlla maywut dafay able rek te léeg-léeg jafe-jafe am Euh, wax dëgg yàlla nga nekk sa mbokkum taalibe mën a ci jafe-jafe bu fekkee li ngay wax dëgg la ngeen bokk ak jublu euh, bokk ak namel ndax euh, taalibe bi moom murid moom isil murid ala ulul abra xayrul rahman xaysu mooy ki nga xam ne rek gutul lu dul ngërëmal yàlla te ngërëmal yàlla bokk na ci li koy maye séddoo bokk ak sa bokki lislaam bu yàlla dogalee ñu ne ci jafe-jafe nga jàppale leen su yàlla doxalee ñu ne ci bànneex ñëw ñëpp bokk ko di yëkkatandoo di tegaloo dafa mel ne am na benn mbokk taal ah. asalaamaaleykum. ñëpp du baax maaleykum salaam wa rahmatulah. waaw sëñ bi. na ngeen yëndoo. ñoo ngi sant baax Diop. ana waa Kolle mbaa ñu ngi si jàmm. ñu ngi si jàmm bu waxee taarika alhamdulilah. alhamdulilah na ngeen def ak coono. sant yàlla bu baax ñu ngi leen di ziar bu baax dam mbégte bu baax wax dëgg yàlla. Diop dana ziar baax a baax a baax. alhamdulilah ah, mbir mi de wax dëgg yàlla moom ñëpp ci war a kontaan waaye mbirum sëñ Tuubaa mel na sëñ Tuubaa mbiram moom xanaa lu gisagul waaye li ñëwul ne moom. lu wér nga wax. Mhm. loolu mbetteel ci ñun wax dëgg yàlla. dëgg la dëgg la dëgg la. maanaam lu ak lu lu ak ségul rek lu ak ségul waaye lu ak lu ne moom du doon mbetteel moom. dëgg la dëgg la. Ah, li ci am li solo daal ñi nga xam ne ñoo ko fi nekkal fii ñun ñuy taali bi daal kenn a nekk nga nekk fa sax ambassadeur nga nga yor comportement bu nga xam ne rek kenn la xeeb ci dara rek. Ah, mooy mooy li nga xam mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy pay gi. dëggam daal mënuñu koo fay sax waaye loolu itam ci ndimbali lay bokk. dëgg la dëgg la. waaw yàlla na yàlla defal xewal gu bare bare ñu ngi leen di siyaare bu baax wax dëgg yàlla. amiin sëñ Abdou. waaw man jàpp naa ne kon li nga xam ne moo war a nekk taalib suñu taxawaay ñun ñëpp ñun taalibe Serigne Touba yi ah. mooy ginnaaw xam nga fi mu nekk jamono yi dañoo at yi yëpp dañuy wax ne jullit yi dañuy ñuy def ay jëye di mbubboo l'islam euh, di taal ay bomb di rey ay nit kon ñu dëgg dëgg ñu talibi lan mo war doon sun taxaway dëgg dëgg suñu ñëpp nan nga yaakaar ban taxaway lañu wara am pour wan nit ñi kat li kat du l'islam bi nga xamne mom la Seydina Mohamed jàngale li du l'islam bi nga xamne mom la Cheikh Ahmadou Bamba Khadim mustafa jàngale te leppam mu jële ko sallallahu alayhi wasallam wax nga dëgg li nga xamne sun taxaway ñun talibi yi sëñ yi moy fa sëñ te kon tankam rek dëggam tay ko sax yombut waye ñu jëme mel melakan wo dëgg la lepp lu nga xam ne mooy yu nga xam moy takal mooy l'islam l'islam ñu bañ caa bokk bañ caa wax dëgg la ku ñu seen ñuy dem rek ñu xam ne xel ñii kat boromi kilifa lan te ci yoonu mu ci ci ci ci liggéey Sëñ Tuubaa lan bokk. Mm-hmm. waaw loolu rek mooy xanaa maanaam mooy ni ci kenn ku ne nag euh, wane sa bopp ne diine du cee ne da rey nit wala ngay takkante bopp ba loolu du diine. dëgg la. waaw julleeg julli ak woor it dong du diine nag. dëgg la. waaw ab cër maanaam ab yar am solo. koo mën a taseel nga jox ko cër bii nga xam ne am na ko ci yow donte du jullit sax nga won ko ne yow mii kat nit nga comme man kon nag cër bi war a yow dama la ko war a jox. dëgg la. waaw loolu rek mooy mooy mooy suñu taxawaay tey moom lan war a doxee itam nag. Mm-hmm. waaw kenn koo xam ne wàcc nga ko itam waaye loolu mooy suñu suñu nekkuwaay. dëgg la. waaw baax na kon ñu ngi leen di siyaar yéen ñëpp jërë ngeen jëf su ma seet na guy. jazaakallaahu xayran jërëjëf Diop jërëjëf. waaw baax na jërëjëf say réew ñu bokk yëpp. jërëjëf jërëjëf danañ ko dégg incha allah bi jërëjëf Serigne Abdou Baaxe Diouf doon woote fële ci Kole Valdelsa ñu ngi koy ziar bu baax ziar suñu mbokk taalibe yi fa nekk yëpp di leen jaajëfal di kontaan ci ñoom di rafetlu dugg bi ñu dugg noo ngi eh, wax sax eh, ndeysaan fàttali nañu ko fàttali wuñu ko waaye xam nga rek jóge ci tool yi noo ñaanal eh, sang bu tedd boobu nga xam ne moo fi bàyyi ko muy Serigne Xaafiya Mbakke moom Cheikh Mouhamadou Fadal ñu ngi koy siyaare boole njabootu sëñ Fallou gépp tey teg siyaar bi ci loxol eh, Cheikh Abul Baraka moom Cheikh Mouhamadul Fadal mi nga xam ne tey moyor yor mooy xalifa bi yor caabi bunt kër sëñ Fallou ñu ngi koy siyaar sunu xarit sunu Serigne Serigne eh, Mamor Mbakke eh, Serigne Mamor Say ñu ngi koy siyaar bu baax magam bu baax jooju ñoo ngi koy siyaare Serigne Bassirou Fadilou ñoo ngi koy siyaare Serigne Cheikh Awa Balla Mbakke Fadilou di kenn ci ñoo ngi koy ziar Serigne Cheikh Oumy Fadilou waaye ñu koy ziar Serigne Cheikh Oumy moom Serigne Abo Fadilou di ko ziar soxna Ndiaye Mbacke moom euh, Serigne Abo euh, Serigne soxna Ndiaye Mbacke moom Serigne Cheikh ñu ngi nekk fële ci Bristol ci Angleterre euh, ñu ngi koy ziar kon mboolem njabootu Serigne Fallou gépp di dellu di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ci yàlla la ñuy jóge waaye ci yàlla la ñuy dellu jëmm ju baax ju gëmoon Serigne Fallou jëmm ju baax jëwoon murid saadix ndeysaan bu ngeen xoolee yenn ci nataal yi sax am na ci boo xam ne ndeysaan dafa sol njaxasu Baye Fall laxasaayu nga xam ne kon jëm ji teg na tànkam fa ko waajuram wa tegoon ci jaayante ak Serigne Touba doon ab taalibe jël bokku deret gi euh, jaayante ak seriñ Touba kon ñoo ngi koy siyaare mboolem lislaam bi yépp di ko siyaare Serigne Sidi Muxtaar di ko siyaare njabootu Cheikh Amadou Fadal gépp di ñaan yàlla mu warale ko ak mu tedd wa di ñaan suñu borom mu dolli ko ay leer te taas ma ci barkeem dolli ko yërmane ak xéewal ak njëggal ci barzaq barakati Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Mustafaa kon noo ngi ñaan saa ku sàkku tam ci mbokk taalibe bi yépp moom la ñu waroon a njëkkee ñu defal sëriñ afiya mbakke ibnu cheikh mamadou fadal ay euh muy xuwallaahu ahad ñaala ko ci lu man ñaan yàlla mu boole mu dol mu jot ko ci yool bi ak mbolam ñi nga xamne fekk na len fan ko fekk yëpp barakatu cheikh amadou bamba barakati cheikh mamadou fadal ala wax ne sëriñ fàllu moom moy borom jagleel gi ku nam na sëriñ waye ku jaxlé woko kon yàlla na téru euh sunu sang bu tedd bobu di cheikh euh cheikh sëriñ afiya ca àjjana yi gën a kaw yu kon noo ngi sant bu baax tamit euh, Serigne euh, Abdou Baaxe ci dugg waam solo boobu nga xam ne dugg na kon jàpp naa ne kon daal euh, ñun ñi nga xam ne ñooy taalibi Serigne Touba kenn ku nekk ci ñun am na responsabilité am na responsabilité ci lan ci fexe ba kenn du yàpp lislaam ci moom fu mu mën di nekk rawatina ci liggéeyukaay yi dafa am lu benn bokk taalib bu yëngu sëñ Modou Mbow. Ah, waaw aleykum salaam wa rahmatulah ku wax na waa sëñ Abdou baa yaa ngi si jàmm rek. Cheikh Mbacke Mbuub. waaw waaw Cheikh Mbacke Mbuub damaa juum Cheikh Mbacke Mbuub. ma ne Modou Mbow waaw non non mu sëñ Modou Mbow bu bu nekk si euh, Méda. ndeysaan Méda nga nekk Méda fan la nekkee. moo ngi nekkee province de Monza Brianza. ah ndeysaan Méda maa ngi lay ziar baax Mbow ngi si jàmm rek. waaw ñoo ngi sant yàlla man nag dama euh, euh, keroog la 31. waaw ah. damaa waaw. amoon euh, amoon ay bagages yoo xam ne dama ko jaawaleeg benn waay bu tuddu euh, mhm. euh, alo waaw maa lay dégg. benn waay bu tuddu kii ndooti waay mbay mbay ñang mbay ñang waaw. waaw suñ suñuy bagage dafa jaxasoo. maanaam moom mooy moom mooy bagage yi nga xam ne nii dañ koo def comme comme saako ceeb yi ni mu mel. Mhm. comme genre saag yooyu moom la mel. Mhm. ñett laa ci amoon nag. Mhm. bi ma ci amee ñett man ku dudoon la ku dudoon naa ñaar yi. ba nga xam ne maa ko moom benn bi nag bu fa dudoo ak man rek ma jël ko def ko ci samay bagage ah bi ma ko indee ba sama. waaw bi ma ko indee ba sama kër ma daldi ko. mu nekk ay lekk kese moo ci nekk. dëgg la ma daal di ma yaal jël bagage yi bàyyi ko sama kër. dem aéroport récupérer samay bagage ma xam ne bagage yooyu du ma ko jëlee mhm. yóbbu ko aéroport dañ koy lakk parce que ay lekk kese moo ci nekk mhm. ma doon ñaan nag sama mbokk taalibe yi ku dégg ma di ko annoncé léegi euh, du ma du ma woowee man fu mu mën a nekk ci nord bi man jaral na ma ma ñëw ba foofu indil ko ko ban vol la woon téléphone kii la woon ah, Marie Diana la woon le 31 ah, janvier sa numéro lan la le 31 janvier waaw le 31 janvier la woon. borom bagage yi mbay ñang la tudd. mbay ñang xanaa defu ci numéro ci saag bi. non non néew benn numéro moo nekku ci. waaw loolu kon wax ma sa numéro téléphone. waaw 338. waaw. 75. waaw. 65. waaw. 323. 323 338 75 65 323 Modou Modou Niang Mbaw yaa ngi dëkk Méda. waaw maa ngi dëkk Madiame euh, bi ma ko ubbee nag gis naa ci lu mel ni dañ koo laxas dama damaa yaakaar ne saafara moo ci nekk. waaw waaye laalu ma ko. waaw dëgg la waaw même sax def naa ko naa ko ci ci Facebook bi. bëgg mhm. daal euh, mu ngi sama kër daal. waaw ma bëgg daal borom jot ci. yow kon daal yow yaa jaawale jël bagage su jàmbur. man maa ko jaawale man. maa yàkkam ma jaawale ko loolu kon li ñu ci wax rek mooy maanaam bu ëllëgee. Euh, li ma koy mhm. ma profité waale waxaale mbokk taalibe képp koo xamante ni yaa ngi voyagé. la gën mooy hmm. loolu yàkkamti yàkkamti nga jël sa saak nga def ci sa tur ak sa numéro téléphone maa ngi koy ñaan ñëpp ndax bari na lu muy am lool lool lool képp koo xamante ni yaa ngi traité nga jël saak ak sa tur ak sa adresse loolu dëgg la xam nga man ah, a jël sama bos ñetti saag la ñaar yi sama tur la ak li ñu ko envolé mu nekk benn xam nga mooy mooy kii ngay fay aéroport Dakar ñu ñu laxas ko waaw waaw mu nekk mu nekk benn ci première bi man xool naa ko deuxième bi xool naa ko xam nga damay jàpp na troisième bi rek man maa ko moom. parce que xaatu ma na ne keneen moo ko moom. bi ma ko jëlee tugg ñëw ba sama kër bi ma ko laajee rek laa ci gis ay lekk. ay gerte dëgg la ji ci Sénégal daal. waaw kat moom mu ñu bind ci tur rek lañ ci bind tur rek lañ ci bind. non non. bi ticket bi moom lañ ci def mbay ñang ticket bi. ni ñu koy defu ci turam defu ci numéro téléphone defut ci dara man kay loolu moom a ma gën a jaaxal moo tax ma def ko ci Facebook bi mm-hmm. aussi tim ma ma ne naa téléphone ci ci rajo bi du ñàkk boroom mu mu dégg ma daal waaw waaw incha allah daañu ko jàllale bu baax ndax moom dimbali bokk taalibe rek moo ñu fi bàyyi kon euh, mbokk yi yéen ñiy déglu rajo xasida online képp koo xamante ni yaa ngi tudd euh, yaa ngi tudd Mbaye Niang te jóge woon Sénégal le 31 janvier 2017 ku ñuy wax sëñ Modou Ñang Mbaw dëkk Médane ñuy wax léegi nii dafa jaawale jël saag bu mu moomu saag bi nag mooy comme saagu saagu genre ce saako ceeb bi ñu ambale ko képp koo xamante ni nii ba nga ci am maanaam sa saag jaawale nga ko te nga tudd Mbay Ñang na nga woo sëñ Modou Ñang Mbaw te dëkk Médane ci wat mën sa ci 338 75 65 323 33 du 653 ok merci beaucoup jërëjëf waaw jërëjëf problème ñoo ko bokk jërëjëf dama xewal jërëjëf jërëjëf jërëjëf euh, mbokk yi kon ñoo ko déggaloo ñu ngi sant mbokk moomu xam naa waroon naa jaar sax centre war naa waroon naa jaar sax service commercial euh, vraiment am lu mu fa bàyyi ndax euh, loolu moom am na solo ndax ñun moom xam nga tamit wax dëgg yàlla rajo bi suñuy fond bopp lañ amuñu subvention amuñu sport sponsor amuñu lenn maa ngi koy fàttali dem mbokk taalibe yi képp koo xam ne yaa ngi déglu rajo Xassida online te gis ci sa bopp te Serigne Touba dong tax ndax mu wax dëgg yàlla nun moom ci Serigne bi lañ tàmbalee yem ci sëñ bi euh, kenn mësu ci dégg mukk lu sëñ bi gërëmul doo ci dégg kundum kundum doo ci dégg dara lu sëñ bi kon nag maa ngi talalat loxo mbokki taalibe yi képp ko xam mën ngaa jàpp ci rajo bi juróom-ñaari at ak ñuy dem di demal suñu bopp wax dëgg yàlla ku ci mën a jaayante ak yàlla ak yonent bi tubaa Touba te gëm bokk gëm-gëm ak ñun mu ngi la ki tàllal loxo xeebuñu ci dara lépp loo xam ne nit jox nañu ko ci danañ la ko ci defal ci liggéey Serigne Touba bi ndax xam ngeen ne am na ay frais ay yooyu yëpp connexion yeeg serveur yeeg yooyu yëpp dañ koy fay te yooyu yëpp wax dëgg yàlla dañu koy jaayante rawatina sunu bay jëwriñ di sëñ Modou Mbaye Thiam kon nag maa ngi tàllal loxo mbokki taalibe yi képp ku mën a jàpp ci rajo bi te yàlla tax ak yonente bi ak ñu ngi lay tàllal loxo loo ci def incha allahu taala daan ñu ko defal ci euh, liggéey bi maa ngi ñaan sëñ Modou Mbaye Thiam mu bindal ma numéro poste payam ci euh, mu jox ma numéro poste payam bindal ma ko bu ko defee képp koo xam ne itam am nga loo bëgg a dugal ci liggéey bi ngir yàlla ak yonente ak Serigne Touba nga def ko ci ñu defal la ko ci ndax wax dëgg yàlla bu ñëwee tamit danañ ko def ci liggéey bi kon ma fàttali kon ma baamtu ko sëriñ Modou Niang Mbow dëkk Meda ci côté Monza dafa jaawale ci Malpensa ci Meridiana wala bu jóge woon Sénégal benn saag saagu ceeb yi ñu àmbale ko dafa defoon moo ko moom te moomu ko saag bi nag Mbay Niang ko moom Mbay moomu su fekkee mi ñuy déglu wala képp koo xam ne xam nga Mbay Niang dégg ko muy jàmbat saag bi na nga ko jox numéro téléphone bi woo ci ni ko sëñ Modou Mbaw moo jaawale saagam sëñ Modou Mbaw numéro am mooy 338 75 65 323 33 75 65 33 loolu mooy numéro Serigne euh, Modou Ñang euh, euh, Mbaw mi nga xam ne moo jaawale saag bi xam naa Baye Fall su fekkee man nga maa bindal sa mën nga maa bindal postepay bi ñu joxe ko bu ko defee mbokk taal bi itam képp koo xam ne am na lu muy barkeeloo loo xam ne bëgg naa jàppale rajo xasida online Touba Monde bi wax dëgg yàlla euh, mu mu mu jàppale ñu ndax wax dëgg yàlla euh, rajo bi moom sëriñ bi rek ko ñor ci sëriñ bi rek lay yëngu ñu ngi sant tam mbokk yi nga xam wax dëgg yàlla seen loxo jugu ci benn yoon ku mel ne sëriñ Modou Diouf Mbassa euh, ak yeneen mbokk taal yu mel ni moom nga xam ne wax dëgg yàlla li ñu def lépp dañ koy def ci suuf te sëriñ bi rek tax di yëkkati seenu ñaq di ko def ci liggéey bi ngir bokk gëm-gëm ak ñun ñu ngi leen di sant leen gërëm di ñaanal sëriñ Touba fay leen euh, ngeen gi fay xam naa kon Baye Fall su fekkee mën nga maa bindal rek euh, poste pay bi ak euh, codice fiscale bi ma laabile ko mbokki taalibe bi nga xam ne am na ñoo xam ne ndeysaan xëy na ñu ngi déglu émission bëgg dugal seen barkeelu loolu ci liggéey bi te yàlla dogal amuñu yoon bu ñu jaaree bu ko defee ñooñu tamit incha allah da ngi leen mën a tinki ci loolu bu ñu fàttee ci ñaan tamit maa ngi leen ko yelwaan suñu mbokki taalibe bi suñu jëwriñ ñu bokkoon ak moom liggéey bi muy sëriñ naar nger xasida maa ngi leen di ñaan bu ñu ko fàtte ndax xam ngeen le 3 octobre le 3 octobre suma juumul ci la wàccoon ab liggéey kon fi ne war naa toll ci ñeenti weer ndax euh, boo ne octobre novembre décembre janvier février kon euh, ñu fàttali ko ci ñaan ñaan suñu borom mu jëggal ko xaside yi nga xam ne moom rek la bëggoon te daa ko liggéeyal yàlla na ko xaside yi fay yàlla na ko xaside yi wéttali fu mu tëdd ca ca ca ca bàq ya bi barakati Cheikh yi Bamba Xaadimal Mustafa lu waaye man ci ay euh, ixlaas ñu defal ko ko ñaan suñu borom mu jot la ko ci yoon bi jot la ci képp koo xam ne tudd nga fa yu barakati Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimal Mustafa dafa mel ne tey sama gars yi xam naa daa mel ne tey dañoo réer waaye nag man maa ngi leen di xaar maa ngi xaar sëñ Ibrahima Khalil maa ngi xaar sëñ euh, Abdoulaye Ibrahima Abdoulaye yëpp rek ci liggéey bi nga xam ne noo ko seq te Serigne Touba rek tax wax dëgg yàlla ci taxawaay bi xam ne euh, Serigne Touba amati na ndam l'islam amati na ndam ci li xam ne moo jëm ci Euh, sagal sag bi nga xam ne islam amati na ko ci tudd Serigne Touba nga xam ne wax naa ne muy xaatimante bi nga xamante ni ministère de l'intérieur bu Italie niñ koy xaatimante ak euh, nit ñi am waru gar am sañ-sañu dund seen diine rawatina communauté islamique yi muy njabootu islam gi ne ci biir réew mi waaye ñu jukki ca turu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimul Moustapha loolu kon di namul islam yëpp ñu réaction Euh, maa ngi koy fàttaliku kon maa ngi koy waxtaan léegi ak sëriñ euh, euh, Abdoul Ndiop bu Collé Valdelsa di ziare bu baax ndeysaan sama mbokk taalibe yi nekk fële ci Livorno maa ngi ziar Sëriñ Mahmadan Fall nekk ci Vada maa ngi ziar Moustapha Dieng maa ngi ziar euh, Moustapha Dieng Soda maa ngi ziar sëñ Baara Dieng ñoom maa ngi ziar sëriñ euh, euh, Moustapha Fall ak ndeysaan waa Vada yëpp maa ngi leen ziar bàyyiwuma ken di leen ziar di leen jaajëfal sëñ Modou Sylla ñoom Massaer Ndiaye Thierno ñoom ndeysaan ñoom Thierno Sall ñëpp ak Baye Cheikh ñëpp ñoo leen di ziare Daaru Ndiaye ñoom ñëpp di ñaan suñu borom bu dafa leen tawfeex ak xéewal maa ngi ziar sëñ Alla Sarr nekk fële ci Viterbo suñu soto yu tedd yooyu ndeysaan fàttewuma sëriñ Cheikh Seck nekk fële ci Trieste eh, fàttewuma tamit eh, ki nga xam ne mooy sëñ Amidoun Amidoun eh, Guèye nekk fële ci Milan Cheikh Ibrahima Lampakara koy ziar bu baax ndeysaan di leen jaajëfal nag bi nga xam ne moom la ñu àndaloon liggéey Cheikh Amadou Kara bu tedd boobu muy waxtaan wi ndeysaan Ibrahima Mbuub ci Brescia sëñ Lampakara Amdi am ñëpp wax dëgg yàlla ci seen taxawaay yu rafet ñu ngi leen di bu baax soxna Fatou Samb nekk fële ci Genoa Fatou Kara Noreyni ak sëñ Noré ni nek fële ci Rimini Ousmane ngi ziar bax mu tamit diko jaajeufal euh ñëpp wax deug yàlla ci taxawaay yu am solo yu rafet di mastawu ci liggéey bi nga nañu ko kon ngi rek allo Modou Diouf Cheikh Mbacke allo sëñ Modou allo allo sëñ Modou. mbokk yi ngi dog dog-dog nga du sunu ñu ngi baax baax ñu ziar sëñ Modou Diouf. Eh, moom Serigne Cheikh moom Serigne Saliou Mbacke ñu ngi koy ziar baax di ziar tamit sunu mbokk Serigne Saliou Mbacke buongiorno eh, ñëpp xam ko wax dëgg yàlla muy jàmbaar lool ñu ziar suñu ko fa ay tawféex ak i xéewal eh, di ziar bu baax tamit waa ak yëpp sëñ moo dum sëñ Mbaye Guèye Mbaye allo di ziar bu baax waa Ansaar yëpp ndeysaan sëñ Mbaye Guèye Mbaye sëñ Bëgg Fallou di ziar tamit Serigne Serigne Mbaye Babacar Mbaye ndeysaan ñëpp wax dëgg yàlla Aliou Niass ñoom day jàmbaar di jàppale bokk taalibe yi bu baax a baax ci liggéey bi ñu ngi leen di ziar bu baax di leen kon ma fàttali rek temu tay bi mooy euh, ni ma ko waxoon léegi rek loolu nga xam ne am na ministère de l'intérieur keroog le premier février te wax sëñ islam amante ci ndam ndax turu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Moustapha bi nga xamante ni yëkkati kooti na euh, ndax euh, loolu lépp ndamul islam la allo sëñ Modou allo ñu ngi ziar bu baax tam suñu jëwriñ seen de Demba di ko dogal ngànt ndeysaan tey dafa xam naa ne ci euh, yitte yi rek euh, moo ko gàllankoor euh, di ziar baax tamit sëñ Abdou Ba moom tamit di ko dogal ngànt nga xam ne ñooñu daan wét lañ émission bi wax dëgg yàlla nag di ci ànd ak ñun dox dox bu am solo tey nag yàlla def ñun nekk ci ay yitte ba mënuñoo teew ñu ngi leen di jégalu ñoom ñëpp tamit di leen dogal ngànt ak bu mel ne teew ñu mel ne ñoom ñëpp teew nañu kon ma fàttali rek nii loolu am war naa doon ab soñu ci kenn ku nekk ci nun ndax ku ne Serigne Touba nga wuyoo kenn ku ab taalibe la war naa feeñ ci sa comportement euh, war naa feeñ ci sa jëf euh, war naa feeñ kon tamit ci li nga xam ne allo sëñ Modou dafa mel ne sëñ Modou allo sëñ Modou sëñ xam naa dafa ne allo salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. waa Diouf ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax. waaw suñu Cheikh ñu ngi delloo ziar bu baax baa ci jàmm. waaw maa ngi sant Seexul Xadim bu baax alhamdulilah. ñu ngi de ñu tuddee dama fekk ba ci yoon wi di lay tànt di la pour dugg ci émission bi. de ndeysaan dëgg la kay Diouf ñu ngi ziar baax a baax. ngi leen di ziare bu baax tey jiital ci ziar bi jëw ni rajo beeg mbokki taalibe yi nga xam ne ñu ngi ciy yëngu yëpp. jërëjëf jërëjëf. di ziar mbokk auditeur rajo Xassida online bi yi nga xam ne ñu koy déglu te nekk ci àdduna yépp yëpp. Mm-hmm. Ah, xanaa rek gun go deug yalla da nga tuddu lo xamanteni bi nga couper mbokk mom rek mom taxu may woowee émission bi li mi am am solo deug yalla da nga tuddu lo xamanteni ni day suñu mbir deug la dañ war ci mën wax te ji te yaakar ya na jek nañ ci wax ci ndax da joxo mhm. rajo xasida online bu dee producteur ñu né man nañ bu don bu don produit ñun né ñun ñoy consommateur yi ndeysaan deug la deug yalla dañ ci mat séré ndax ñun ñi ñëpp yaakar na luddul liggéey bi lu jitu wi xamante ñu bokku ñu fuñu dëkk deug la kon yaakaar na kenn ku nekk si ñun boo waxee ci boo waxee ci liggéey bi rek eh, ku la xam wala ku la xamul rek dina xam ne li ngay wax yàlla jëm Sëñ Tuubaa ji doo nga tax ngay wax dëgg la dëgg la ñëpp yaakaar naa ne rajo bi dong moo ñu tax a xamante ndax day liggéey Sëñ Tuubaa boo xamante ni ay gor ñoo ko sos di ay julit di yoo xamante ni liggéey Sëñ Tuubaa rek daf a mm-hmm. ñoo xamante ni kenn ñoom koo xamante ni mas naa dégg sa moroom nela la diw woon ma ne pour daree rajo bi mu mës am dëgg la. yàlla dogal nag ki nga xam ne moo doon suñu jëwriñ man naa ne ñun auditeur yi mooy ñi daan jëf ci rajo bi muy Baye Naar ñu koy ñaan yàlla. yàlla yàlla dool ko yàlla dool li koy leer fa mu nekk amiin bak saw xadim képp koo xamante ni sama galaas gi tey jariñoo nga dara ci liggéey Sëriñ Tuubaa muy rajo lu mu mën di doon rek jëmmam jaa taxoon dëgg la kon wax dëgg yàlla mu daan ci def liggéey boo ko xamante ni lu am solo la woon tax muy rajo bi ñu ko jiitu muy directeur bi muy euh, technicien yi muy sëñ Modou Mbaye ak ñoom si yàlla yéen ñi ñëpp kenn koo xamante ni mas naa woote ci ci kenn muy privé di public ci rajo bi musta am dëgg la waaye mbokk yi ñu xam ne li may wax nag xañ na maa ci gën a awma ci euh, doxuma ci genn ndox waaye nag yëg-yëg rek laay waxee ndax mhm. murit bu nekk tey lay jariñ sa moom la lay jariñ ci liggéey bi Sëñ Tuubaa rek mooy nga ñàkk ca wala nga xalaat ca wala nga def ca dëgg la kenn ku nekk ci yéen li la war yaa ngi koy def mu yaa ngi joxe sa xam-xam yaa ngi joxe sa temps wax dëgg yàlla di def émission te kenn fayu ci kenn. Eh, hmm. Modou Mbaye Thiam mi nga xam ne moom signal yu mbokk yi nga xam ne ñooy nekk ci suuf itam di liggéey seen temps bi yëpp amuñu visite privée ñu seeti kenn duñu joxi mbokk ngir rajo bi. dëgg la dëgg la fii rek wax dëgg yàlla maa ngi koy gis nga xam ne wax dëgg yàlla gis ko mu génn dem ndox yi te sax bariwut ndax wax dëgg yàlla fu mu nekk mi ngi ci rajo bi impéñaaro ci guddi ak bëccëg. Mhm. kon mbokk yi nga xam ne may déglu. Eh, eh, ñuy ñaan ñun surtout ñun auditeurs yi nga xam dañuy déglu rajo bi comme ni sëñ Cheikh doon wax tàng man moo ma tax a dugg. Mhm. loolu mbokk yi organisé wu ñu ci te kenn ñu ko def jëmmi sëñ Tuubaa jee tax ñu def ko te itam ñoo ko def suñ bopp nag ci ak ak ak bëgg. ak loo xamante ni moo bëgg a liggéey Sëriñ Tuubaa képp koo xam ñu ngi dégg suñu kàddu képp koo woo ci rajo bi eh, muy ci Skype bu rajo bi wala muy nga xam Cheikh Mbacke wala nga xam Pape dembam wala nga xam koo mën di xam ci rajo bi rek boo ko jotee dina la jokkale ak mbokk yi nga xam ne organ ñu ngi def organisation boo xam ne wax dëgg yàlla bëgg nuñ koo def na ko bàyyi naar daan defee ci suuf nga xam ne yàlla doo nga taxan daan def di jàppale rajo bi liggéey Sëriñ Tuubaa muy liggéey boo xamante ni comme ni ko waxee sànq ni ko mbokk moom génn waxee yitte judul jooj yitte du nekk ju jëm Sëriñ Tuubaa ñu ngi koy jaarale ci rajo bi ñu koy def bu buñ ñu gën a gore nañu xam ne liggéey Sëriñ Tuubaa la wax ne lu mu yéeme yéeme ay nit ñooy jël seen poos di ko ci def di jël seen temps di ko ci def kon képp koo xam ne dañuy dégg xamal ne maanaam warteef la ci yow muy que nga jël sa sa nga nga mën a yëkkati tëdd ni nga mën a toogee sa biir kër tëdd sa néeg di déglu rajo bi mu la jariñ su dégg bëccëg ni nga war a amee xam ne am nga devoiru xam ne rajo bi dafa am lu koy doxal dëgg la ndax du public du dara privé la ay nit a jóg jaayante di ko def kon nag te itam ni ko jëwriñ ji defee sànq mbokk moomu ku ci am mhm. yitte ci rajo bi jëm ci diine lu baax boo woote ñu defal la ko amul xam la amul ñàkk xam la ñu laa xam kon mhm. nag nañ nañ na mbokk yëpp xam ne dem liggéey suñ tubaa la boo xamante ni dañoo naka jekk mbokk yaa ngi ciy jàpp waaye nag dañuy wax en tant koo xamante ni wax dëgg yàlla suñu tolluwaay xañ na foofu lañ ci mën a waxee ci koo xamante ni wax dëgg yàlla daa am yëgit ci rajo bi di ci woo mbokk yëpp nag ñu ngi ci organisé wu te mbokk yi la nga xam ne bàyyi naar da ko ci doon def fas yéene ñu mu dok mu dok ba bañ koy fekk yàlla na yeex waaye bëgg nañu baax lu daan def ci rajo bi kenn ci ñu ku nekk ci ñun mën ko caa wuutu di ko def ba ba nga koy fekki te defin wi nag mooy lu ànd ak diine ànd ak njàngalim suñ tubaa ànd sutura muy ànd ak ànd goo xam ne kenn sas kenn dara lu ci waay mën di def ngi jëmi suñ tubaa ji da ko ci def soo ko ci defee mu dem boo ko mu dem kon ñuy ñaan mbokk yépp koo xam ne ñi dégg Euh, di leen ci gën ñaax di leen ci di leen loxo muy que képp ku woote ci rajo bi comme ni ma ko waxee woon boo woote ci rajo bi dañ la orienté ba loo ci bëgg a def ngir jëmmi suñ tubaa ji euh, ñu ubbi la bunt nga def ko ci maa ngi jégalu bu baax ci kàddu yi xam naa awma ci teewlu wax dëgg yàlla dama euh, dégg ngay wax ak mbokk moom rek a naa occasion la boo xam ne yàlla xaj na lu ma kenn digal ma wax ko nag sama sama sama bëgg bopp la Euh, du jëwriñu du kenn waaye nag sama yëg-yëgu bopp la. maa ngi koy tuubu wax ko jéglu. lépp rafet na lépp rafet na sëñ Modou lépp rafet na te wax dëgg yàlla euh, loolu mooy cangaay li ngay li ngay li ngay digle da nga caa jiitu ndax wax dëgg yàlla euh, ñu ngi koy seeral mbokk taali bi ñu déglu yëpp. ci rajo la ñuy wax àdduna li ñu déglu wax dëgg yàlla nekkoo di wax rek da nga da cee jëf. wax dëgg yalla yëpp gis ko kon nak ñu ngi lay sant di ñaan sëñ Tuubaa bi nga xamni motax moo nga koy def mu fayal la euh ñu ngi fatte rek kon euh, xamna naa sëñ Mourou bala nga dem ma fatte rek ñu ko kep ko xamni ba nga ngaa am euh, manam ba nga am lu la leer ci radio bi ak doxin man nga wo woo sëñ Ibrahima Ndiaye Khalil ci 329 09 39 350 329 09 350 wala nga wo euh, sëñ Moustapha Kamal jaxate ci 388 88 35 811 388 88 35 811 wala nga woo ma ci 349 26 51 749 349 26 51 749 wala nga woo sëñ Modou Mbaye Thiam Baye Fall ci 329 70 66 940 329 70 66 940 wala nga woo sëñ Aline boobu jës bu murit ci 300 euh, ci 392 52 14 865 392 52 14 865 e e ndeysaan maa ngi tiim nii eh, sëñ sëñ sëñ Modou barkeelu bi nga xam ne ndeysaan sëñ naar ci eh, jëfam ju rafet ak bëggam yéenam ju rafet ndeysaan moo ko defar loon muy xasid ak ya rahmaan ya rahim ak ahmadou mourniyan ndeysaan ñu mën ko mën bu yéeme mu ko doon barkeeloo def ko di jaay cinq euros ndeysaan di ko ci liggéey muy liggéey bu am solo ndeysaan maa ngi fàttaliku keroog bi mu ko njëkkee indi ndeysaan def yéeme lool nga lu mu bëgg lu fu mu gis lu baax rek na ko rajo Euh, képp koo xam ne ndeysaan yeneen jëpp jëpp dafa demoon ndeysaan ba yàlla dogal na daana toog sax ba jagadi ba jagadi uh-huh. ndeysaan euh, di di di di di di di euh, di di di ndax damaa xam ne sëñ Cheikh sax maa nekk ci technique ndax uh-huh. yaram xaw sutante waaye teewut ma ko daan jaayante ndeysaan wére di di di uh-huh. nekk ci technique bi foog sëñ Modou may Thiam ne ci tool yi di yëngu ndeysaan mu nga xam ne mooy nekk bi ba émission bi jeex suñ tubaa jaraloon ko lu ne rajo bi jaral lu ne kon nag euh, ñu ñëpp nañu ko bokk fàtteku ci ñaan di ñaan limu Sëriñ Tuubaa ci jëf ci lépp loo xam ne fu mu gis rek aw waaru rafet rek sëñ naar bay na ca goppam rafet bi rawatina euh, saan al xitma di orfali naar fépp xam ne rafet aw yiwoo nga fa rek toolu yiw bu ne euh, bay na fa goppam bi kon yàlla na ko yàlla yërëm kon dëgg yàlla amiin sëñ Cheikh lool lool sew xadim loolu dëgguma la waaye man mii de bokk na ci bokk bari ci ñun liñ ko jooyee mooy lool mooy fan la ñuy jëlee ci lu paax loo xamee ni daf lay woo ci suuf mm-hmm. ndaxte ni mu ci daan doxee mooy da doon dox ku dem ma dem tey lu mu la woo dala cay jiitu te wutal ko limite boo xamante ni daf ñu daan wax ñu mooy liggéey Sëriñ Tuubaa bi daal amul du ci kenn di neexal kenn man ba ma yàlla doon wala ba may xamanteeg moom damay déglu rajo bi sama waaw sëñ Cheikh tey di ko déglu di ko déglu jàpp naa rajo bi ay loko la yor wala fu sori la nekk. ndeysaan. Mhm. ba may xamee ñu muy gabe naa ko kere yàlla dogal may ñëw génn autoroute bi ñëw ba mu tegtal ma ma bàyyi mu tegtal ma day keroog laa leen njëkk a gis. ndeysaan mu tegtal ma bu ma tegtalee ba ma àgg fa dëgg yàlla dem ba gis ko.

liggéey suñ tubaa bi ñu boolante Baye Naar dafa créé woon famille boo xamante ni ay liggéeykatu suñ tubaa la ñoo xam ne dañ daan liggéeyal suñ tubaa ci suuf daawuñu woote ci rajo bi di ko wax mi laa mas a woo sax wax waaye toll ci am na ñoo xam ne xañ ne ñu ngi ci daan def ko xawma leen wala moo kenn xamu leen ma moo tax ma ne naa ci jàllale voix bi ba bu ko dégg te daan seq ak Baye Naar loola lu jëm ci liggéey yu mel ni muy rajo beeg lu mel ni moom nga xam ne loola mbokk yi ko daan doxal fas yéene nañ bu soobee yàlla di ko continuer di ko wóyal képp koo war a xam naa da nga naan def ngir jëmmi yàlla ji ngir jëmmi yonent bi ngir jëmmi suñ tubaa ji bàyyi dem na waaye looloo fi ba léegi. dëgg la dëgg la. bàyyi naar ékkatu waaye lam fi sosoon muy loolam dara jógu fi te fas yéene nañ koo continuer bu soobee suñ tubaa ah. di ci tàllal loxo yi ñëpp nag Eh, man moo Diouf maa ngi dëkk Bergamo eh, sama numéro téléphone ku ko bëgg tamitam 392 la 31 71 865 392 31 71 865 bu dee tubaab Brescia la bu ñu ko mel ni Serigne Jong ma nga fa boo demee Genoa ñu wax Mourtala Gueye nga fa ku dëkk ci dëkk yooyu xam ñooñu rek koo ci jot rek dina la orienté ba liggéey boobu loo ci bëgg a def rek ngir jëmmi yàlla ji ñu def ko te fas yéeneen cee dox barki maa ngi sant bu baax tey jéegul jërëjëf Serigne Modou Mbassa Serigne Modou Diouf bu tuba Bergamo ci dugg bu am solo boobu ñu ngi lay sant di la gërëm yow tamit di la ñaanal wax dëgg yàlla lu baax rek ngay wut yow tamit fépp foo dégg lu baax yaa nga ca yàlla na yàlla yoon suñ guddal sa fan dafa la tawfiq sàmm la sàmm la gi ci Cheikh Amadou Bamba Mustafa dafa mel ne sëñ gay bu musolente mi ngi doon dugg ndeysaan waaye dafa eh, mel dafa am jafe-jafe xam du ñàkk mu duggaat sëñ daam gay bu musolente ndeysaan li gën a yéeme ci liggéey bi sëñ naar liggéey woon ndeysaan liggéey na ko ba mu jax defu ci numéro téléphone am numéro jëriñ rek la ci def ndeysaan numéro sëñ Ibrahima Ndiaye la ci def sama numéro numéro sëñ Kamal ak numéro Thiam ak Alioune numéro sax defu ko ci nga xam ne moom wax dëgg yàlla bëgguloon lenn ci feeñ di feeñ ci benn affaire ndeysaan sëñ bi rek ko ñoroon kon nag yàlla na ko sëñ bi fay bu baax a baax a baax waaw dafa mel ne ñu may leeral ñu ngi may leeral Baye Fall ni son bi dafa xaw a des am na auditeurs yi diglu di ma leeral ni son bi dafa xaw a jaxasoo ni ma bu nit ñi wax son bi dafay tegaloo xam naa ñu xoolaat ko bu baax rek boo defee mbokk tam itam muy déglu émission bi mu xoolal mu xoolal nu ndeysaan mooy mbokk dañ koy bàyyi xel ndeysaan am na ko ma wax léegi ni ma dafa mel ne sëñ daam salaamaaleykum wa rahmatullah aleykum salaam wa rahmatullah jawri ñoo ngi siyaare noo lay siyaar naka la siyaare bu baax a baax a baax alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah di siyaare mbokki julli yëpp ak mbokki taalibe yëpp jërëjëf gay jërëjëf di siyaare sëriñ maam suñu njëriñ jooju génn léegi ñoo ko siyaare bu baax a baax a baax. ak sa a sa. Eh, di siyaare di siyaare jëwri yi nga xam ni ñoo ne ci ñooy liggéey ci rajo bi xanaa dañ ci jiital sëñ Mamadou rek. a eh, ko defee ak ak sëñ Ibrahima sëñ Abdoulaye Diop bu ko defee ñu ñëpp rek. yow de borom gis nga dafa mel ne dugg na léegi rek xam naa boo boo daal moom moom <laughs> ñu ngi ko doon teewul moom moom moom ñoo ngi koy sant bu baax di ko siyaare lay lay ndessal mhm. waaw waaw wax nga yéen yéen ji ma am yéen ji ma am ci mbokk julli yàlla na ko yàlla def ci barke sëriñ Touba ak sëriñ Gawa amin amin ya rabbi amin amin maam yéenam rëy na loolu wax dëgg yàlla ci maam ci jullit yi mhm. waaw ñoo ngi koy siyaare bu baax xam naa ne tey nag moom maam maam li li ko ma danga fi lu war a mat ñetti thèmes yoo xam ne nii benn bu ci ne mat na mat na kii mhm, waaw ci noonu nga ko waxee ne maam dafa amati ndam loolu rek daanaka mënoon naa def programme bi dëgg la waaw xam naa kon dañ ci sant xaadim rasul bu baax a baax rek. Mm-hmm. Eh, di ci di ci ñaanal sëñ gor góor yàlla moom itam di ci loolu xew ci état yàlla yokk ay leeram taas ñu ci barkeem ci barke sëriñ tuba amiin yaa rabbi amiin ba Seydou Xaadim. Ah, wax dëgg yàlla buñ demee ba état yi Serigne Touba am fi cër bu mel noonu gannaaw ndawlu yàlla sëñ Moutala liggéey na ci liggéey bu rëy. dëgg la ndeysaan dama bi may liir sax damaa àggalewul waaye euh, ci loolu rek hmm. ndeysaan Ali Baba Faye mi ko publié te yàlla def mu nekk conseiller ci foofu mu wax ni mi ngi hmm. delloo njukkal ak di ñaanal Cheikh Mouhamadou Moustada mi nga xam ne loolu rek moo newoon ab liggéeyam muy lislaam yaatu euh, yaatu ci hmm. àdduna rawatina fi ci réew mi <laughs> waaw dëgg la dëgg la dëgg la tubaarkàlla kon nag moom ñoo ngi ci ñoo ñoo ngi ko ci sant bu baax di ko ci ñaanal eh, maam yàlla yokk alhamdulilah ci barkeem ci barke Serigne Touba. amiin amiin rabbi eh, ci di ci fasaale jooju Baye Naar nga xam ne moom tam kenn du ko fàtte moom tam ñoo koy ñaanal eh, maam yàlla yokk ay leeram ci barke Serigne Touba. amiin amiin ak Seexu Xadim amiin yaa rabbi. waaw te teg loxo ci njabootam ndax dëgg yàlla moom tam xam naa ne fi xolam seet na ndax lu baax lu baax rek la bëggoon kon nag moom lu Mm-hmm. waaw kon kon kon ñoo koy sant bu baax a baax a baax di di di fàttaliwaat mbokk taalibe yi loolu nga wax noonu ci rajo bi rek comme noonu ko suñu jëwriñ noonu wax rajo bi moom maanaam sunu rajo la ndax ñun ñoo koy consommé ñoo ñoo koy yandoo ñoo koy fanaanoo. dëgg la. kon nag lu ci waaye def lu nekk moom na nga xam ne sa bopp nga ko defal ca ca ca jëmale mbirum Serigne Touba kanam la kon nag lu ci waaye man rek bu kenn xeeb dara bu kenn yéem dara rek. dëgg la dëgg la dëgg la. waaw ah, lool waaw lool lool lool daal lañ ne woon nañ ko fàttali sunu bopp ci leen sant leen gërëm wax dëgg yàlla maam maam lépp rafet yow tam nag dañ leen sant cant ak bopp ndax gis nañ ne màggali woon nga ca wax dëgg yàlla bagage yëpp maam defal nga ñu ko direct. kon nag dañ leen sant jërëjëf Guèye noo ko bokk noo ko bokk Guèye noo ko bokk. Ah, ñoo ngi ci lu baax wax dëgg yàlla dara manqué wuñu lépp lépp maam lépp wan nga ñu ko sant nañ baax a baax a baax a alhamdulilah Guèye amiin yàlla na suñu boole dimbali ñëpp dafay ak sa xarit jërëjëf jërëjëf ñoo la ñoom nga kon ñoo ngi ba ci kàddu comme bokk ñoo bëgg a dugg siyaare ñoom itam jërëjëf jërëjëf gay jërëjëf sëñ Dame Gaye euh, ci Mousalente ñu ngi koy sant bu baax di ko jaajëfal wax dëgg yàlla di koy teewlu rajo bi di ñu gunge bu baax a baax dëgg yàlla di ko safoo ñu ngi koy sant baax di ko jaajëfal euh, kon tafadal mashkuran yaaram ñu ngi lay ziar baax Mbacke Cheikh Mahmoudan bisimilah bisimilah sëñ Cheikh Mbacke ñu ngi lay ziar bu baax Mbacke bisimilah ñu ngi dara ziar di leen sant bu baax jërëjëf balay sa jërëjëf di leen gërëm baax naka yaram mi mbaa feex na bu baax waaw ñu ngi sant sëñ Tuubaa baax ñu ngi sant alhamdulilah yàlla nag sëñ Tuubaa dolli bu baax a baax da nga ñoo yéex a tàmbali sax na dañoo gontoon yëngu ji waaw man kay daanaka sax déglu naa émission bi dafa mel ni it li ma ci xaw a gën a ñor dëgg-dëgg lépp ma ñor waaye bi ma ci gën a itteel dëgg-dëgg mooy point bu mujj bi dëgg la dëgg la muy ndax yi ci des moom ginnaaw waxtaane nañ ko te it la ca matoon a wax yëpp wax ngeen ko du jar daanaka ñu cay baamtuwaat ak di ca waxaat dara. dëgg la Mbacke. bi ñor mooy mooy point bu mujj bi muy mbirum rajo bi. dëgg la. nga xamante ne liggéey yu seexul xaddim kese la noonu nga ko waxee. Mhm. yéen ñooñu di ay xale. mën ngeen a mënoon ngeen a ñëw nekk ci leneen. Mhm. ndax seen morom yaa ngi nekk ci leneen. seen morom yaa ngi ci association yi bu samdee ca la ñuy perte seen temps ba min nu jot. dëgg la te xëy na ña ngi cay am dara luñ def ci seen poche. ña ngi ci yeneen jataay yoo xamante ne ñeneen ñi ci des ci ñuy nekk di ci am loo xamante ne ña ngi def dara ci seen i poos mm-hmm. fii nag amagul dara lu waaye di jël di ko def ci poosam dëgg la waaye nag am nañ ci loo xamante ne dañ koy jël def ko ci suñ bàmmeel te foofu mooy pay gi nga xamante ne moo ëpp doole lépp kon mu mel ni fi ñu toll daanaka dañoo toll rek ci jël di liggéey loo xamante ne liggéey bi ñuy liggéey kenn jotagu ci benn dërëm fii nu toll ngir lan lu waral liggéey boobu mooy taalibe yi nga xamante ne ñooy njabootu Serigne Touba ñoom ñëpp di ànd ak mbëgte mbégte mi mooy li leen doon li ca kër ga yi leen doon wax ñoom ci biir kër ga mm-hmm. li doon yàqal njaboot gi yi doon indi ay jaaxle yëpp ñu fexe ba dindil leen ko bariwaa na koo xamante ne samedi walla dimanche du diglu Cheikh Mbacke du diglu Pape Demba lu xew ci réew mi du ko xam ndax làng bañ ko koy waxe xamu ko yaakaar naa xeex ngeen ci ba fi mu toll nii. bu dimanche mhm. jotee. Mhm. neuf jot nga jàpp sab rajo. bépp loi bu nekk ci biir réew mi noo war a comporté woo say këyit ak sa njaboot ak loo war a def yaakaar na fi toll boo teeloo rajo bi duutoo ci laaj benn syndicaliste dara lépp dana la leer nañ. dëgg la Mbacke dëgg la. bu digg bëccëgee boo jàkkaarloog suñ Mahmoudan. lépp mhm. loo bëgga a waxtaanee ci lu la jaaxaloon ci Touba xëy na te ñeme woo koo wax. wala ñeme woo tudd wala sa sa kàddu ñeme wu ca àgg. Mm-hmm. gis nga ko bokk ci njabootu Serigne Touba koo xamante ne dana la ci mën a jàppale ba sa kàddu mën ca àgg. dëgg la bu dee sëñ Ablaye Diop ñooma bu dee sëñ Ibrahima ñooma yépp lu la jaaxaloon ci diine bu ngoonee boo leen jàppee xëy na da nga mën a gindeeku ci biir diine. Mm-hmm. te dañ daan gis ne ay télévision la ñuy jàkkaar lool looy jàkkaar lool mooy bëre ay concert ay lambu ay ay ay ay soirée ay nangam ak nangam yoo xamante ne léeg-léeg nga àgg ci loo xam ne faaw da nga koy fay ndax doo ko bëgg seetaan na ndox sa doom. dëgg la Mbacke. wala doo ko bëgg seetaan seetaanandoo ak sa soxna wala doo ko bëgg a digandoo ak sa soxna. Mm-hmm. kon kon ni ko sëñ Modou Diouf moomu daaneele léegi sëñ Dame Gueye daaneele ko léegi ak mbokk yi leen jiitu woon yëpp liggéeyub Serigne Touba kese na mm-hmm. liggéeyub Serigne Touba kese nag dafa am lu ci war. li ci war day xëy na doo bind kenn ab leetar na ko boo ci abonné fayal nangam wala fayal nangam wala fayal nangam. waaye ginnaaw liggéeyub Serigne Touba la xasiida ak yeete rek lañ ciy teg. kenn ku ci nekk war nga caa mën a def saw ñàq ba liggéeyu Serigne Touba boobee gën a dëgër. dëgg la Mbacke dëgg def nga ko léegi rek wax nga ko walis woowu ngeen di wax noonu balaa xaajee guddi nit fee nit nit téléphoné leen jël si ko. Mhm. loolu rek njariñ la bu yamoon ci loolu kese rek njariñ la. dëgg te bu njëkk fii ci diaspora bi nga am lu mel noonu jafe na. dëgg la. mais fi mu toll yaakaar naa wax naa ko ci barki démb nee naa leen fi mu toll képp koor dong bu jotatee duutuñu naatable weer yu feeñ na wala feeñu. déedéet bu naafila jotatee duutoo nattable ba xam nangami rakka nga war a naafila wala waroo naafila nangami rakka mhm. loolu rek yooyu dong dong dong dong bu ci yemoon jar na ko dëgg la kon lay jaadu nag mooy yeneen télévision yi ci des yeneen rajo yi ci des nga xam ne amul benn njariñ la nga jële sax mën naa am nga jële ca bakkar boo xamante ne xëy na pour nga kafaara ko wala nga effacé ko sax dana jafe mhm. lii ay tuyaaba kese nga ciy jële wa legi kon xeyna television télévision yeneen ci dess niñ mën amé ay fans club amé ko nangam ak nangam liggéey serigne Touba bi war nako ko amé ay fans club deug deug ku koy diglu di ci jarñu war nga ci mën def saw ñak même bu doonte ne 5 euro la même bu doonte ne 10 euro la deug la parce que tay nonu nga ko waxé ci tambalé ba imaginer ki nga xamantene ne daf ci rey boppam guddeeg bëccëg sëñ Modou Mbaye Thiam moom nga tuddu léegi ba diko laj laaj poste pay mhm. pourtant lepp da koy installé ci biir kërëm deug la ay machine la yo xamantene day daw 24 heures sur 24 heures dafay di lak courant di lak téléphone day lak courant Mhm. da ngay fay courant boo dee liggéey sax am nga problème fi boo de liggéey boo ko gisoon da man man li ci bari saytu naa ko ndax li ci bari dama koy bëgg gëstu ba xam lu wér avant may wax mhm. bu dee téléphoné sax yaa ngi am problème boo dee liggéey sax yaa ngi am problème ak ñi ngay liggéeyandool ndax léeg-léeg nga làqutu ci douche ba yor sa ordinateur enregistré dara mémoriser dara mu continuer ay jàng wala mu continuer ay wax nga continuer demaat ci liggéey dëgg xam ne daanaka daf lay xaw a yàqal sa liggéey sax te tey ñun murid yi coow li li muy bari bari fi mu toll nii ñun murid yi tey fi mu toll responsable maanaam mën nañ ko jëlalee responsabilité bi sax muy am salaire ci biir kër gi ba pare yor liggéey sëñ tubaab bi liggéey sëñ di dox su fekkente ne dem nga sëñ Cheikh ba yooyu yëpp jafe la mënoo caa jëlub dërëm di ko ca joxe waa xanaa léegi ñun murid yi ñun suñ dimbal yomb na sëñ Cheikh mm-hmm. looy yëgleeti wala looy wax demal la ngay nar say fay beneen télévision ñeen fukki junni wala wala wala ñaar fukki junni wala fukki junni Mhm. mu defal la ko te ñakoy koy soxalu len ndax ñakoy koy ñu nekk sénégal la mhm. ñun ñu nekk ci diaspora bi ñun la ittel te ñun ñi nekk ci diaspora bi yëpp ñi ngi am radio bi ñi ngi am télévision bi mhm. so démé ba mëno jël yenn 5 heures wala yenn 10 heures jox leen ko ngir jëmmi sëñ touba ji liggéey ba nga am jox leen ko ñu defal la ko nga fay leen lu bon bon xam dëgg yalla wax dëgg yalla loolu yomb la côté boobu boko ci sété côté boobu côté bu yomb la yow mëno jël 10 heures participer mëno jël sa carte membre mëno jënd dara waye xana man nga ne ah man kat dama fi def ak cant wala dama fi def ak màggal wala suñ daayira bi kat dañuy yëgle nangam la may demee ci yeneen télévision di ko fa joxe di ci fay ay deux cent mille wala trois cent mille naa dem ci rajo Sëñ Tuubaa bi joxe fa cinquante wala mu joxe fa vingt mille franc ñu ko te na nga bëgg ñëpp dégg ko noonu na ko ñëpp dégg dëgg la kon kon kon sëñ Cheikh lu yomb la loo xamante ne noonu noonu sëñ mut Juuf daanale léegi lu am solo loo xamante ne nun ñi nga xamante ne nun ñooy njabootu sëñ Tuubaa nun ñi taalu bi sëñ Tuubaa sëñ cheikh nañ del siwaat liggéeyu sëñ tubaay yi nañu amal soxla parce que ci lañ mën a waxee suñu soxla te kenn duñu jéng dëgg la cheikh mbàkke tey mën naa jël rajo bi dimanche suba ci euh, samedi ji ci dimanche ba jant bi sol lu ko neex mu wax ko ci ci yoonu murit ak lu koy defar kenn du ne ko yamal fii wala heure bi fii la yam wala dagg ko wala doy na wala nangam parce que alali sëñ tuba la yaa ko moom dëgg la tey boo demoon ci beneen rajo wala nga dem ci beneen télévision ngi di la jox ay émission danañ la limité bala ngay def yenn émission wala ngay def it waxe danañ la wax li ngay wax danañ la dicter ne li ngay wax yamal fi yamal fi fi ala li sëñ touba la nun noko mom duñ ci duñ ci limité kenn wala ñu ñëw ne la waxeel ni wala waxeel ni fexel ba li ngay wax nay lu intéressé yoon wi te doxal ko rek bu la neexee nga jël ko suba ba jant bi so kenn la fayal boo noppee fay ci fa fayal ci émission bi ñaari téeméer wala juróomi téeméer wala juróom benn téeméer kenn du ko ci wax kon dafay am loo xamante ne nag nun liggéey sëñ tuwaay yi fi nekk te man waxuma sax rajo xasida wan laayeen képp taxuma di wax man liggéey sëñ tuwaay yépp ma itteel liggéey sëñ tuwaay yépp nun noonu lañ ci war def mhm. li ñuy dem di jàppalee ñeneen ci seeni alal nañ ko jàppalee suñ bopp ci tey rajo yi ñu fi soow télévision yi ñu fi soow ci adduna bi ba adduna bépp di ko seetaan sañ ci yax ay nit ci ñoo ci yóbbu seeni publicité ñoo ndax buñ ko deful woon du dox te bis bi nag bisu weeru sëñ bi te publicité yañ te amul njariñ te fi ñu toll ñun liggéeyu sëñ Touba yi tey bu fekkonte ne ñun murid yëpp liñ amati yóbbu ko ci liggéeyu sëñ Touba télé fi sëñ Touba yi fi nekk ak rajo sëñ Touba yi fi nekk léegi Lamp Fall nekk lu ñëpp di yëm léegi euh, euh, léegi léegi Almouridiyyah nekk lu ñëpp yëm léegi Touba Monde bi TV nekk lu ñëpp yëpp yëpp léegi parce que ñun suñu alali bopp la mais suñu alali bopp jooju ñun ay yeneen nit a ñuy nax di ñu ko defal faneen foo xamante ne tey xoolal tey bërki dem bu damay seetaan benn télévision mm-hmm. seetaan nag li ma lay wax sept heures ci ngoon buñ tàmbalee joxe màggal yi da ngay gis ñu wane sëñ Sidil Muxtaar tàmbale màggal gi sam xel tàmbale dal ñu teg xasida hmm. xasida gi buy jeex tegaat nañ beneen publicité boo xamante ne musique na ko musique a ko nga xam ne par hmm. force dañ lay obligé pour nga xool ko ak say bët yow parce que loolu lañ ciy jublu xam nañ ne boo tàmbalee xool sëñ Sidi Moxtaar mu intéressé la ñu wax benn publicité ci Touba dañuy jaxal si publicité yi beneen publicité lañ ciy teg boo xamante ne grand théâtre lay doon nga xam ne intéressé wu la yow mais faaw nga xool ko parce que dugal nañ ko ci biir publicité boobu nga xam ne mhm. yu mel noonu lañ naxee naxee naxee naxee ba nga xamante ne kon liggéey yi sëñ Touba yi sëñ ci am nun noo ko moom suñ alal la li ciy des lépp ci ñun lay del si Modou Mbaye Thiam ci defee étage du ci defaree dara lu mu ci mënoon di amit même fi mu toll buñ ko ci joxoon ba mu yor ci ay étage it du ko defar fu du Touba bu dee Touba la koy bàyyi ak njabootam di ko yor Touba du génn Touba mukk kon li ñuy defaree alali jàmbur mu di ko defaree faneen wala mu di ko defaree dëkki maamam wala dëkki cosaanam nañ ko defal sëñ Touba ci ci dëkkam bi parce que lu yomb la loo xamante ne ndimbali lu yomb la mais ñun lañuy dem di ràcce ne benn jàmbur wala di lay bayal sa tool ba mu kenn gënu ñëpp ñoo ko bokk tey rajo bi bu la neexoon bu subaa boo ñëwee nga am ci accès bu la neex télévision bi tàmbalee daw sëñ àll yi ñoom di ci daw sëñ àll yi ma nga nekk télévision bi da koo installé biir këram dafa mujj luyee ak ay télévision internet di utiliser gaz di utiliser lu ne te yëpp fi mu toll nii ci salaire am la koy fay rajo bi daf ko installé biir këram ci xaalisam la koy fay alalam la koy fay te te bu dimanche nga dégg ci lu la neex bu alterné nga dégg ci lu la neex doo ci dégg lu dul lu dul ay xasida ak yeete doo dégg doo ci dégg lu sëñ bi gërëmul doo ci dégg lu sëñ bi gërëmul doo ci dégg lu sëñ bi wax naa la ko léegi ba ne ci mbirum àdduna mi ñu ci dugal sax gis nga ko wax naa la ne la léegi sëñ Cheikh kañ nga gëj a dégg kuy déplacé wu ci këram di dem ci syndicaliste yi dëgg la kañ nga ko gëj dégg wala bég wala même buy déplacé wu këram di dem ci syndicaliste yi nga fekk na li xam lam lam xam ak lam fay war a yóbbu ñu defal ko ko noppi na ba ko ci poosam parce que xam na ko gis nga yaara ko ci doguma la doguma la Mbàkke waaye dama lay la ci jox benn firnde rek. yàlla ah. dogal na bi ma màggalee. damaa mm-hmm. dem ci benn euh, kuy defar ay boîte oto ma dem fa. Mm-hmm. doon defarlu sama boîte oto daje bi ma mu ne ma cinq heures na ko jël si. Mm-hmm. cinq ma dem di ko jël si fekk fa benn taali bi mu ne ma géwalu xaadim ma ne ko Mbàkke mu ne ma xamoo ma de ma ne ko déedéet. mu ne mu ne fa ne damaa bëgg ngeen dimbali ma may ma seere ma ma sant jëm ji ma ne ko ah suñu yow la ma sant mu ma day yow ak ah, dama la dama am mu jafé jafé ci sama walu keuy hmm amna pétition ma def ko fi wo la mm-hmm. nga nga wo nga wo pap dem ba mu tek ma ci yoon amna naa benat yo at ñewuma xam Sénégal ren di magal mm-hmm. sina naa ngi nii Touba lool nak ma ngi koy sant ginnaw yalla mm-hmm. ak tektal bi nga ma tegtal ma woo Pape Demba mu tektal ma bama jaar ca juróom benat ak di mang su ngi sa gisaat sama njaboot mais señ bi xoolal joju joju tuyaa ba señ ma fa dem xoolal jooju nu mu toll nu mu tollu mu toll gis nga ngir deugal li nga wax bërki dem bu am na sama benn taalu bi boo xamante ne mi ngi toskaana taalu bi sëriñ ba sëriñ ba say sëriñam dafa amoon problème yi problème yi mu daaneel ko ñu tudd xam na noonu la tudd yéen ñu jàng ko wax na yéen koy xam waaw ABC la xaw <laughs> man ma doon ABC mhm. ABC mu daaneel ko nii ba jàpp benn loxo bi ak benn tànk bi mu ko defee fi mu toll ñu defal ko ñu defaloon ko benn benn benn benn invalidita ba muy continuer di fayee ko invalidita bi mais xamu ci dara mu continuer dem Sénégal toog fa diir boo xamante dañoo dem kër ga contrôle fekkuñu ko fa ñu daal di invalidité oh. mm-hmm. nga xamante dem na Sénégal jaaxle ci am ci ay problème fenn bi mu ren jii nii été am dara parce que mënut a jaay. dëgg parce que yaram moom amatul doole ji mënoon jaay te jaaykat la ab rek la fi toll bi mu ñëwee ren jii woo ma wax moo ko ma ko lu tax waxoo ko bu yàgg mu ne suñ bi doon baña man déw dëgg la Pape lijjantil ko ko ba mu tege ci yoon ba mu dellu fu mu nekkaat fi mu toll barki démb dem na Sénégal. ndeysaan. te loolu lépp fi toll nii tey rajo bi nga xamante ne ci la ñuy liggéeyee muy liggéeyu sëñ Touba loolu rek moo nu ko may. bu dul woon nan ngay def mooy ab sëriñam day déplacé wu dem Toscana fekk ko fa woo ay taalibe mën a ànd ak ñoom pour mën koo lijjanti mën leen a tegaat ci yoon ñu yóbbu la ci tubaab daanaka la ñu yóbbu la ci tubaab yóbbu la ci yeneen yoo xamante faye lii faye lii nga dugg fii te la ngay def dara du ci lijjantiku boo lëggee nga amaati jafe-jafe mais nga xamante li ñuy dund même bu fekkente ne luwaa yi nangu fekk la ne nangu ko dana am fenn fu ñu ko mën a jaarale foo xamante ne dana ko mën a làq ba ba ay adresse am bu ñëwatee danañ ko mën a contrôler duñ ko contrôler naan ko yaa ngi fi wala nekko ko mënal ko dëgg la Mbacke dëgg la tubaab mënul ndax yow tey Cheikh Mbacke mën nga am ay problème tey ñu ne waaw ñu lijjanti la ko problème yëpp am mënatoo toog ci réew mi parce que toogaay bi métti na ci yow mën ngaa dem Sénégal mais tey mën ngaa am ab Mahmoudan Mbacke moo xamante ne bu ab lettre ñëwatee dana ko dajji xool ko xam li ci nekk bu jëree yóbbu ci syndicaliste yi mu yóbbu ko bu jëree defar nangam mu defar ko bu jëree nangam mu nag xam ne dana la mën a protéger booy delsiwaat ci réew mi loo fi amoon ko dagg mais yooyu tey fi mu toll waxtaan yi ngeen ciy waxtaan dimanche yéen a ci sénégalais yu bari yoo xamante ne léegi sénégalais yi bu ëllëgatee xam nga ne boo nekkee Toscana tey am ay problème da ngay daal dem ci Pape Demba parce que ma nga fa toujours nga dégg mu di ko jox boo amee ay problème parma Cheikh Mbacke Mboup nga fa boo amee problème Mila Kane na nga fa nanga noonu nga koy def ba nga xamante ne te loolu lépp liggéey yi ñu am menn moom menn ñoom tey xasida online bi daanaka lim ci def yu ci bari moom moo ko ci def kon nag jàppale ko sëñ Cheikh yomb na ñun ñëpp nañ ci jàpp te xamne mhm. liggey bi nañ xamne liggey bi mur mbay momuko ibrahim ndjay Khalil momuko Cheikh Mbacke momuko seigne mahmoud Mahmoudan momuko liggey seigne Touba la ndax noonu buñ fa nekkon di Cheikh Mbacke tay Cheikh Cheikh Cheikh la bu ko neexoon tay bu fa demoon di dem di tag baayam wala mamam bu beut set lu ci yoon kenn deug la mais da fa ma sa tag sa baay wala nga tag fi sa mam seigne Touba rek ngay tag deug la seigne Touba ngay tagal nit ñi nit ñi diko deglu te pourtant am nga droit ci tàggoon fi say mam wala nga tag fi say baay seigne dan man fa na fa demoon di woné bopam nangam mam ciar nak man na fa dem di woné bopam mais seigne touba rek lañ ci woné té seigne touba jiñ ci woné ñun ñëpp ko bok kon nak nañ xamné dal lolu ci seigne mut juuf wax lu am solo la lo xamantene ñun nun ñëpp nañ ko def muy sun ala li bop deug la dimbalé ci suñ boppit yomb na moy lii ma waxon rek ku ci mëna barkélu ci numéro bo xamantene numéro buñ la muy jox la muy poste pay mën ko ta def barké ya rab xamna ci lolu sax damay jëm ci profiter ma ngi jëgul dog bi ma doxalaale poste pay bi poste pay bi moy euh 53 33 17 dix mhm. zéro huit mhm. trente sept mhm. soixante quatre vingt cinq ma ba bamtat ko cinquante trois trente trois dix sept dix zéro huit trente sept soixante quatre vingt cinq tur Modou Mbaye Thiam codice euh, bi mooy ñi nga xam dañuy dugal ci tabakaay mooy euh, tii akka m ñetti yoon soixante seize a 01 ZK 343 AK TAK bamtuwaat ko TAK M Travolta B 76 mm-hmm. mm-hmm. A 01 ZK 343 AK maa ngi dégg sax yaaram lépp lu ci wax dañ ko defal bi dëgg la lu ca dem rek ñun xam nañ ci lu wér lu ca mën di dem lu mën di doon dana dem ci liggéeyu Sëriñ Tuubaa bi te fi ñu toll nii na ci nit ñi lu ba rajo bi dëgër télévision bi dëgër lu ñuy waxati ñu saytul ko suñ bopp suñ yëfi bopp la noo ko moomal suñ bopp suñu alali bopp la ñun ñëpp ko bokk télévision baa ngi noonu ci biir biir satellite yi léegi am na ci satellite yoo xam ne ku ko am da ko a am moom it li ngay fekk ci biir rajo bi doo nga ciy fekk ñu mm-hmm. yéene ci sa diine yéene ci sa lislaam yéene ci sa taalube mm-hmm. njaboot gi ñu amoon tamit buñ ko tàmmee seetaan na ndoog ñoom ci biir kër yi am na ci lu bari loo xamante ne dana leen ci sàmm bañ tege ci aw yoon kon nag mm-hmm. ñun ñëpp nañ ci góorgóorlu te xam ne sëñ Cheikh alali sëñ Touba la ñun ñëpp ko bokk dis na fexe it ba dimbale leen ci lenn muy yow moomu di man mii di mu di suñ Modou Mbaye Thiam di keneen ku man di doon danañ fexe ba dimbale nit ñi ba lépp lu nit di ittewoo ci biir réew mi muy service boo xamante ne daf koy ittewoo di ko dox danañ fexe ba dugalal ko ci ab émission boo xamante ne su ko dee diglu duutu jarati muy dem ci àll bi di làmbatu wala muy def loo xamante ne wóoru ko wala muy dem ci tubaab ñu di ko nax wala muy dem feneen ñu ko ci dara ni émission diaspora boobu amee ngeen di ko def yaa Pape Demba ni yeneen suñ ñoom suñ jàppee ci rajo bi ak seen doole danañ fexe ba dugalal leen ci yeneen yu baree bari yoo xamante ne buñ soxlaatee dara dañuy xaar rek bis bi jot ñu diglu ko xam luñ cay doxe ñu doxe wala eh, noonu ngeen def yéen ñooñu tey yaa ngi sa numéro téléphone ñëpp am nañ numéro Pape Demba ci bari am nañ ko te fi mu toll boo xasee bay diglu rajo bi lu ko woo mu teg la yoon woo xam ne mën nga jaaga jaar kon nag na ci yëpp baax xam ne ñoo ko bokk xam naa jël naa sa temps bu bari man bu baax a baax ndax xam naa rajo bi rek moo moo moo moo ko waral waaye nan xam ne daal ñun suñ suñu alal yi boppa su ko mm-hmm. defee ñun ñëpp ñu bokk def ci ay sacrifice ñun ñëpp ñu bokk dox ci jàppale ci jëwriñ yi ci nekk muy sëñ Ibrahima ñoom sëñ Modou Mbaye ñoom ak ak ak ak ñi nekk ñëpp mm-hmm. même fi tollu sax du kuy joxe xaalis kese waaye kuy diglu rajo bi sax te wóor ne am nga fasaaxa bu yaatu am nga xam-xam boo xamante am nga xam-xam boo waxtaanee nga ñëw ànd liggéey sëñ Tuubaa mm-hmm. waaw mën rajo bi ab émission boo xamante ne émission la boo xamante ne yow yaa koy def na nga ñëw ñu jox la ko ci jox la heure bi nga bëgg ñu di ko arrêté di la ko tegal parce que alal li sëñ ñun ñëpp ñoo ko bokk tey am na fi ñu mokkal jawhar nafis na ci ñu mokkal naaju ñoo xam ne mën nañ ko mm-hmm. firil nit nit di ko jariñu am na keneen ku man la leen ni Cheikh ke man kum ci man rek ñëwal jàpp ndax alal li sëñ ñun ñëpp noo ko bokk ay ay volonté ci nekk ay bon volonté ñoo ci nekk kon nañ ci jàpp te xam ne ku ci jàpp rek li nga ciy joxe mi ngi mel ni tey ngay joxe addiya ndax liggéey sëñ Tuubaa la ñun ñëpp noo ko bokk xam naa bëgguma ci guddal lu gën a baree baree bari di sant bu baax di la gërëm bu baax nag waaw jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke yow la ñu war a sant leen ba li lépp ngeen am ko ni ngeen ko bëggee ci barke Sëriñ Tuubaa amin ya rabbi amin Mbacke amin euh, ñu ngi lay daloo ñaan gi Mbacke ndax wax dëgg yàlla yow euh, dañu lay sant di la gërëm ndax royukaay na mm. euh, ndax damaa gis ne ñun taalibe Sëriñ Tuubaa yi képp koo xam ne yàlla dogal na mm. ngay taalibe Sëriñ Tuubaa war ngaa góorgóorlu rawatina yéen ñi nga xam ne yàlla fa def ngeen bokk ak moom teret mm. waaye nga nga mënoon ngaa kaalawu Mbacke foo dem ñu jox ko addiye ndax sëñ Bassirou Anta Niang maam Cerno bi la fati kenn do nga do su digënté borom daaru te ku nekk xamna li Serigne Touba defal borom daaru wala Mbacke da nga futti ku di liggéey di dundee saw ñàq. hmm ñuy liggéeyee Serigne Touba kenn dula ci man. motax tax damay wax ne kuy ab seetu bu la gën te set dula mëna won sa jëm yow parce li ngay diglé ya nga ci ko nak ma ngi ñaan te diko sakku bokk tali bi yépp ñi may déglu. ñaan ñaanal sama doon Serigne Touba gu yalla Serigne Touba guddal fanam. yalla bayil ko fi Serigne Touba ba yéene yi mu am ci liggéey yépp yépp yépp mu mottali ko mbacké lool ma ngi koy ñaan képp ku déglu rajo mu ñaanal la ko ndax dëgg yàlla suñu fierté nga suñu sakk nga wax dëgg yàlla ndax digle woo rek bàyyi da nga caa jiitu mm-hmm. xoolal bi nga xam ne yàlla doogal na ñu ngi ñaanal mbokk moomu mu nga xam ne moo lañ ko doon ñaanal ndimbal muy suñ mbokk moomu amoon euh, sëñ am njaay moomu amoon jafe-jafe ci wàllu kanam gi mm-hmm. dajale nañ ay millions ci rajo xasida online mm-hmm, sëñ Ablaye Diop ñu firnde la ci lu mu dugal yónnee nañu ko ñu gis ko nga xam ne lu ko ko rek ndimbal li nga xam ne rajo xasida online bokk taal bi damaa bëgg ko def dañuy wax nag bàyyi ci sa yowu tànk képp ku ci laajal ndimbal bokk taal bi dinañ ko dimbali mu dem léegi nag dañoo bëgg lu jëm ci rajo bii. Hmm, ngir yàlla rek hmm. seexul xadim. dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la. ndax ñun ñëpp bokk bu demee ñun la demal te yaakaar naa ni bu fekkoon caaxaan la bàyyi dem nañ bu yàgg ndax juróom-ñaar kenn du ko nekk. dëgg la dëgg la bu dul bu dul dëgg tey bàyyi yàgg war nga dem keneen dëgguma la sax dëgguma sax waaye mën naa dem mën naa dekk mën naa dem ba nekk ndimbal boo xamante ne ñoom buñ ci jàppoon ak seeni loxo kenn duutu fay internet di diglu rajo bi dëgg la ci ci RFM ci FM yi nekk ci Italie nga xamante ne ci ngay jàppee rajo Italie yi ci nga koy jàpp nga xam ne duutoo ci fay benn dërëm foo jar sax ngay abonné wu duutu jar ngay def dara ndax yooyu yëpp fi nii ay këyit la yoo xamante ne manis na am dëgg la te fi toll ne bi nga xamante ne mooy Touba Monde bi TV mooy télévision africain ginnaaw ginnaaw télévision diaspora bi yoo xamante ne ñu fi njëkk a taxawal la tey fi toll nii tey jii am na noo xamante ne taalu bi buñ ko ci jàppe woon ñu wax ak autorité italien yi gis nañ ne télévision immigré la te mi ngi yee immigré yi mi ngi leen di teg ci yoon di leen tere lépp loo xamante ne réew mi da leen koy tere di leen teg ci lu baax fi mu ñoom dong bu am na yoo xamante ne buñ ko toppee dem ba am ci seen satellite yi nga xamante ne nit du ci fay dara ni ngay seetaane ay noonu ngay toog di ko seetaane yooyu yëpp mën naa nekk waaye li ci am solo mooy suñ ceex nañ gëm suñ bopp dëgg la xam nga noonu dañoo war a gëm suñ bopp bu ñu sukkandikoo ci kenn bu ñu gëmee suñ bopp nun murid rek man toujours loolu laay wax loolu ngay wax noonu di ma ko di di ko ñaandoo nit ñi sax moom alhamdulilah baax na waaye danoo mënta génn fu dul foofu ñun mënunoo doon lu du talibé sëñ Tuubaa mënta doon loolu dëgg la bala nun lim nu defal nun laa wax de man xaw keneen man na maa wax sama bopp nun waa moo Muxti nun buñ goree danoo war a fay sëñ Tuubaa ñun ñëpp ba defal nun ak waa Daaru Xudoos ak feneen nun danoo goreel sëñ sëñ Seex danoo goreel xoolal am nañ suñu lépp bopp <laughs> nun bu nu neexoon sax mën nanoo bañ a xëy demati Tuubaa fi mu toll Mhm. bu nu neexoon mën nanoo bañ a xëy taal oto dem Touba suñ Touba defal nañu lépp suñ am nañ bopp am nañ suñ jàkkay bopp am nañ suñ jumaay bopp am nañ suñ njabootu bopp am nañ suñ quarante kilomètres carré yoo xam ne kenn duñu fa xatal dëgg la sëñ bi buñ liggéey ñun buñ santul sëñ Touba lu ñu war a def dëgg la te nu ko may sëñ bi ñun sëñ Touba nu ko may kenn ku nekk nag sañ ngaa am na boo xam ne boo demee ba àgg fa rek sañ ngaa garanté sa bopp waaye foofu moom sañ naa fee garanté ne mm-hmm. mënuñoo def lu dul sant sëñ Tuubaa waa kër sëñ Basiiru noonu kon léegi ñëpp rek balancé mm-hmm. moo baaxee noonu ndax kenn ku ci nekk lii ma wax man nga ko wax ne noonu la la defal sëñ Tuubaa noonu la def sa kër ëttub kër baay wala noonu la def sa ëttub kër sëriñ kon li ci des mooy nan doon nan sumeeku doon ay taalube te ndax loolu ngay wax noonu fi ñu toll noonu ñun ñëpp ko ko war a moo Mahmoudan mm-hmm. am na loo xamante damay wax ne Mahmoudan am na loo xamante ne lu mu def lu dul liggéeyal sëñ Tuubaa day nax boppam dëgg la boo demee kër Cheikh Mbacke mu wàcc ab lalam gedd ay njabootam nga tëdd ca kaw lal ba mu di la jox lekkam gu neex booy dem mu jox la alalam ba pare di reetaan jox la doomam ne la na jébbu ci yow ba pare di jooy bi bu la doyul boo nekkee di wut alali adduna wala ngay nax nit te xamoo sëñ Tuubaa nag ak wér ak wér boo di nax nit ñi sëñ bi xamoo sëñ Tuubaa yow yaag sama ndey mën naa ne tey mënoon naa ne Cheikh Mbacke moom sama ndey ñëw bokk lépp di sama nijaay lenk ak xel bu doon sama nijaay lenk nga damay dem këram mu wàcc ab lalam jox ma ko di jooy jël njabootam yëpp jébbal ma ko ba pare di ca teg ay rongoñ xanaa loolu kay da nga waroon a da nga waroon a fexe boog bañ bañ na ne sëñ Tuubaa développé ko nekk di dajale ay nit di leen nax wala nga di leen exploité maanaam xamatoo sa cër xamatoo li la sëñ Tuubaa defal sa xamatoo ko kon nañ créé nañ créé ay santuwaayu sëriñ Tuubaa yu mel ni rajo xasida online yu mel ni Touba monde bi TV def ci suñu alal def ci suñu doole def ci suñu kàttan def ci suñu làmmiñ ku mën a wax lu baax ñëwal wax ko ci su ko defee nun ñëpp nu àndandoo teg fexe ba rajo bi nekk ab rajo boo xamante ne ni télévision yi ñuy seetaani ci adduna bi yëpp di mel noonu la ñuy mel ni fm yi ñuy seetaani ci adduna bi yëpp noonu la ndax mën nañ ko du dara ñun ñun ñi ñun ñi nekk ci Italie képp kenn ku nekk boo defoon cinq euros képp rajo bi dem yoonam dëgg la dëgg la cinq ci kenn kenn ku nekk jëloon tey poste payé bi ni man kat damaa war a dem fee naani ab café café bi may naan fukki dërëm un euro laa ci fay wala deux euros laa ci fay ma dolli ci mu dugal ko na at mi loolu rek ñun murid yëpp ndool buñ ko defoon rek léegi ci kanam tuuti mu nekk ay télévision yoo xamante ne yu doole la kon nag euh, foofu laay tëjee am nañ suñ doole bopp sëñ Cheikh am nañ mhm. kàttan gi am nañ xel mi nañ ko exploité te dem su ko defee bu ëllëgee suñ njaboot yi ñu ci kër gi njaboot yi duñ ñu yéppi mhm. danañ leen mën a yar teg ci diine ndax fi télévision boobu mënoon nga ci am image yoo xam ne sa biir kër ngay toog muy jàngal sa doom ba mu fer ijji jàngal ko ba mu mokkal alxuraan jàngal ko ba mu xam xam diine dëgg la tay duma duma tuddu duma sété ben tour mais demal ci télévision tay bo demone Dakar tay fi tollu ni jigen jigéen ñi nga xamanteni ñoo fa gënon a sànku même même même même lu mu sikk sikk ak ak lu muy def yeneen yu ëpp ëpp tay fi tollu bo demone amna fi ben télévision bo xamné duma tuddu tour wi mais tay mm. jigen ñi nekk Dakar li ñi saggan saggan ak goor ñi ñu ci bari xam ñu ñi sango farata deug la pourtant nit ta taxaw ci télévision bi diko def ci yaramam ñu diko gis deug la ci diko rétan reetaan naan ab dof mu dégg ci lu dégg ci lu ne la dof mu dégg ci lu ne te fekk fay jangal nit ñi pour tek leen ci aw yoon mm-hmm. tey fi mu toll ñaata ñoo ñaata ñaata immigré ñoo nekk bi ci réew mi ñoo xam ne xamuñu lu ñuy farata. boo ko doon lim da ngay xam nu mu toll ñaata fi nekk ñoo xam ne bu ñu julli xamuñu lu ñuy wax. tey ay émission mënoon naa am yoo xamante ne ci olof la koy wax wax ko ci télévision yi ci biir réew mi taxaw di leen wax di leen julli boo defee nii yàqu na boo defee nii baax na boo defee nii baax na même bu fekkente ne yow mënoo lire mënoo def dara ñu ko jàngal ci bët rek bu yàggee nga mokkal sa loolu bénéfice la te mën naa am cinq ci defoon ba jàngal la loolu kon nañ taxaw ci liggéey sëñ Cheikh sëñ Cheikh daal nañ ci taxaw xam naa maa ngi lay téye maa ngi jéglu bu baax ndax maa ngi lay téye lu bare bari ci biir émission bi xam naa waxtu bi sax mën na kon ñu ñaan yàlla Serigne Touba rek ni ngeen ko waxee yàlla na ko ñëpp dégge noonu amiin yàlla balaa ba jàpp ci def ci seenu ñàkk ndax yéen ñooñu fi toll nii euh, ci laay tëjee ma sant leen gërëm leen ndax ndax wax dëgg yàlla ay xale ngeen ni ma ko waxee léegi mënoon ngeen a dem ci ne bu samedi ak dimanche a dem i soxla yéen ak mënoon naa dem doxi soxlaam yow moom mën ngaa doxi say soxla euh, Modou Mbacke Modou Mbaye Thiam mën naa doxi soxlaam Ablaye naa doxi soxlaam sa Ibrahima Ndiaye mën naa doxi xalaam sëñ nekk ñëpp sëñ hmm. Modou ñoom ñoom ñëpp kenn ku ci nekk bu sam di jotee mënoon ngaa dem lijjanti ji loo xamante ne dañ fa am loo def ci say poos mais teew da ngaa hmm. sacrifice ba bu bis bi jotee nga toog dem def say émission adduna bépp dégg ko te émission yi nit ñi ñoo ci jariñoo ndax yow li ngay wax moom xam nga ko ba noppi dëgg la kon du looy jariñoo yow mais nit ka koy dégg moom moo ci jariñu te xamu ko kon ñi ngi sant ñepp di gërëm ñepp di leen ñaanal yalla Serigne Touba ba suñu borom tek ci loxom ba mu ci jël ni télévision yi ak rajo yépp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf Mbacke jazakallahu khairan mi ngi lay sant ba di la gërëm mu doon Serigne Mahmoudan mbacké mum Serigne Basir mum soxnaan tañang mom rab daaral muati ci dugg bu am solo bo xamni dugg na ko wax deug yalla ci émission bi kon mbokk yi ma ngi leen di fatali li sëñ bi wax képp ko xam ne yàgg naa ko wax sëñ bi waxaat na ko képp koo xam ne yàlla dogal na suñu borom may na la euh, ubbiku ci wàll mu man di doon Euh, euh, xam-xam bu am man di doon rek buy jariñ taalibe yi euh, ñu ngi lay talal loxo boo ñëwee ñu waxtaan ñu wutal la émission wala ñu bokk jataay bi bokk yi fi nekk seen xam-xam màcc ci wàllu immigration tam ñu ngi leen di talal loxo ñoom ñëpp bu ko defee ndax xam ngeen ni diaspora soxla na ko ndax soxla yu bari wax dëgg yàlla yàlla jaar na def na mu jaare faju fi kon nag ñu ngi talal loxo bonne volonté yëpp képp ko xam ne yàlla dogal na am nga ubbi ko ci wàllu xam-xam bu mu mën di doon rek bu jëriñ doomu adama ñu lay tàll loxo ndax rajo bi soxla na ko télévision bi soxla na ko muy Touba Monde bi TV di rajo Xassida online Touba Monde bi di leen rajo bi la boo xam ne juróom-ñaari tangi ni muy dox te kenn mosu cee gis lu Serigne Touba gërëmul télé bi kenn mosu cee gis tamit lu Serigne Touba gërëmul kon nag sunu mbir buñ ci jàppee bu doxé nu la doxal buñ ci japp bu taxawee nu la taxawal té sëriñ tubaa mbiram kenn du ko tuddi ki dara muy laal suuf kon nak lañ ci gor góorgóorlu baax baax maa ngi ci tal loxo ñep ma fàttali poste pay sëñ Modou mbay Mbaye euh, euh poste pay bi moy 53 33 17 10 08 37 60 85 53 33 17 10 08 37 60 85 euh code fiscal bi moy T a k M M M kon M ñatt yoon b 76 a 01 zeta 343 ak noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant mbokk yi nga xam wax dëgg yàlla participé nañ ci émission bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm sëriñ Abdoul Baaxi Ndiouk doon woote Collé Valdès ñu ngi ko ziar di ko ñaanal jàmm ak mucc ak tawfiq sëriñ Modou Niang Mbaw doon woote Méda ñu fàttali kon ne saag boobu mu jaawale saagu jàmbur la jaawale saag bi saagu comme saaku ceeb yi la ñu emballé ko euh, wax na ni dina ci dina ci ticket ba mooy Mbaye Niang kon ñu fàttali sëñ Mbaye Niang mën naa woo Serigne Modou Niang Mbaw ci 338 75 65 323 320 338 75 65 323 te mu nekk ci méda pour jot saagam boobu wala ku ko xam. ñu ngi sant baax sëñ Modou Diouf Mbassa moom tamit wax dëgg yàlla di jàmbaar ci liggéey bi ci soññeenu ko yàlla fay barkeb sant baax tamit sëriñ Dame Gaye mu solente ci waxam ju am solo moom tamit nekk fële ci Vicenza ñu ngi sant bu baax tamit sëriñ Max mi mu juddug wax dëgg yàlla te macha allah li mu njariñ ñoo ngi ñaan talib yëpp suñu ñu ñaanal ko suñu borom wéral cëram guddal fanam te yéen moom ci liggéey bi sëriñ Tuubaa ndax am na ci yéen ju kawe yàlla mottali ko ko ci barke maam ju tedd ji di borom daarul moxti ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jégalu nag yàq ñu yàq a tàmbali ndax dañoo newoon rek di sant ñëpp tam di ñaan ngeen ñaanal nu tamit wér soxla nañu ko bu baax ak mucc euh, ngeen ñaanal nu ko bu baax a baax a baax ndax léeg-léeg yàlla mi xaw sutante waaye ñu ngi ñaan ngeen ñaan rek bala ñu fàttali ci ñaan suñu borom wér ba ñu gën a mën a liggéey sëriñ bi te luñ ci am nu bokk ak bi yëpp barka Cheikh Amadou Bamba Khadimul Moustapha noo ngi baax suñu jëwriñ ñi ne woon ci wàllu xarala gi muy sëriñ Modou Mbaye Thiam Baye sëriñ si naaluñ boobu jës bu murit noo sant euh, mboolem ñi ñu ngi déglu rajo bi te di ko wéttali o fuñu mën dina ci àdduna bi di leen sant di leen gërëm di leen tàllal loxo ñoom tamit di leen ñaanal jàmm ak mu ci ak tawfiix mbokk yi jiitu ji barzaq noo ngi ñaan tam ay ñaan jëm ci sëriñ xaafe moom cheikh mouhamadou fadal sunu borom euh, dolli ko ay leer taas ñu ci barkeem barkat cheikh amadou bamba xaalimul xam ne am nañ jafe-jafe ci wàllu liggéeykaay yàlla na am nañ jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram te di ci opito yàlla na yàlla fëgg seen bopp ba ñu delluwaat ci yitte ñi nga xam ne am nañ jafe-jafe caabi fit seen ginnaaw yàlla na yàlla sàmm bu ñu génnaat te mu dëlaleen ak la nga xam ne moo leen fa yóbbu woon nga xam ne jiitu jënañu bar sax yàlla na a jéggal te leen yàlla yërëm way fam seen ko barke Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Moustapha seen mbokkum taali bi ngeen doon àndal muy Cheikh Mbacke Mboup géwalu Xaadimu Moustapha Touba Parma feggoon sëñ Modou Mbaye Thiam Baye Fall si dinaa luñ ci wàllu xarala gi ci seen émission diaspora ñu ngi jéggalu lu baax nag suñu mbokk taali bi sëñ Pape Demba dafa nekk rek ci ay yitte ñu ngi koy jéggalu lu baax moom tamit di ko ñaanal yàlla sàmm ko sàmm njabootam bi barke Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Moustapha di ko ñaanal wii di ko ñaanal Abdou Ba di ko ñaanal mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi jaayante ak Serigne Touba guddi ak bëccëg suba ngoon jël seen i kër de transformé ko ay studio forum bu fiil teqatal la ngir yàlla yor sëriñ Tuubaa rek ngir liggéey bañ a taxaw benn yoon ak ñi nga xam ne lañ jël seen temps def ay émission yàlla na leen yàlla fay ngën gi fay bi barakatu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimal Mustafaa waltuf binaa wa qawwinaa wa kun lanaa wa hab lanaa usal xitaami rabbinaa wa salliyan ala nabii wa sallimi waqdi bihi haajati kulli muslimi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu me for